أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل سهر رمضان على سائر السحور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خاص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñoo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi ba tey ñu nekk ci suura ala imran bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñu war a jël aaya 190 191 192 193 194 195 muy 6 aaya 6 aaya yoo xam ne liñ ciy jële ci njàngin mooy juróom ñetti mbir yoo xam ne moom lañu yàlla bëgg a jàngal ci ñett juróom benni aaya yooyu li ciy njëkk liñ war a jàng tey mooy wujubu taf tafakkur fi xalqi samawati wal ard war gi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala waral na ko ci jaami yàlla yi ñu war a xalaat ci bind bi yàlla bind asamaan ak bind bi yàlla bind suuf waaye ñaar yooyu lan la leen war a jural lan la leen indil suñu xalaatee ci bind bi yàlla bind asamaan ak bind bi yàlla bind suuf lan la leen di jural mooy lil xusuli ala al mazid min al imaani wal iqoon jaamu yàlla yi bu ñu xalaatee ci bind gi yàlla bind asamaan ak bind gi mu bind suuf fan la leen di yóbbu mooy da leen di dolli ngëm waaye dolli leen yaqiin ak kóolute ci borom bi tabaraka wa taala yàlla sàkku na ci ñun ñu xalaat ci bind bi mu bind asamaan bal sax am na ci ay barab ci alquran yàlla di ñu laaj ay laaj a antum asaddu xalqan ami sama waaw yéen yéen doomu aadama yi yéen bindeef yi ndax yéen yéen a gën a tar bind yéen a gën a jafe bind wala asamaan ndeke kon asamaan ak suuf bind bi leen yàlla bind day yokk ab jullit bu gëm yàlla ngëm yàlla waaye lan moo tax ñun tey asamaan ak suuf duñ yokk dara lu tax te tey benn waay benn artiste benn dessinateur nan ngeen koy tuddee artiste dessinateur très bien barakallahu fiik baat baa ngoog su ñëwoon léegi dem tefesu géej daal dajale ay pentiram ak ay pilimam commencé jàppal la suuf si jàppal la garab gi jàppal la asamaan ak suuf si jàppal la ndox mi dóor tableau bi ba pare suñu exi suñu exposé table bi ñu ne ñëw leen di nga gis doomu aadama yëpp ku nekk ki naan fay naa ci 3 millions ki na fay naa ci 4 millions am ñoo xam ne taxaw rek di seetaan dootuñu liggéey ndax tableau boobu nu mu yéemee waa ji lim def fan la ko jëlee ah ci nature bi asamaan baa ngi fi ah suuf saa ngi fi ndox maa ngi fi géej baa ngi fi garab yaa ngi fi njanaaw yi naaw a ngi fi maanaam waa ji li mu def yow boo taxawee yaa ngi koy gis direct jaxran pas tableau bi mais lan moo tax bi nga xoolee tableau bi nga waaru mais bi nga xoolee suuf seeg asamaan bi direct ni waaruwuloo moom mooy alkande doomu aadama yi nekke kon asamaan ak suuf lu mu ñu war a jural mooy ñu xalaat xoola buur bi bind asamaan wala asamaan ni ko yàlla bindee fi mu nekk ni ñuy wax dañuy wax rek waaye kenn xamul ban matière la wax jee bari rek nangam la nangam la nangam la mais kenn xamul lan la yàlla rek moo ko xam bi mu fa nekkee ba léegi kenn mësul gis mu putax kenn mësul gis mu funax kenn mësul gis ñoom Jean ak ñoom Paul tegale ay échelle dem di pentiraat pourtant suñu kër yi sax suñ ko tabaxee deux ans trois ans foog ñu indiwaat Jean ak Paul ne leen pentiraat leen tuuti laalaat leen ndax weñ yeeg ngelaw leeg xale yeeg laal nañ ko am na fissure yeeg maçon yi waat maçon yi ñu tojaat renforcer ciment ñu wawaat peinturekat yi ñu laal waa asamaan booba léegi ban côté lañ renforcer yokk fa ay fer wala ciment ba du daanu moo tax yàlla bu mu ñuy bu mu ñuy toroxloo ñun ñi nga xam ne sunu ngëm du yokk mukk ci li yàlla def daf ñu wax ne xool leen asamaan su ngeen xoolee asamaan ak seen ñaari bët seen bët yi dina delluwaat sëgg ci suuf yàlla mu ne déedéet bu leen sëgg delloo leen bëdi kaw asamaan xool leen mu ne tarjiu ilayka al basar xaasi'an wa huwa xasir seen bëri dina dellu siwaat ci yéen tarax ndax du gis lu mu mën a critiquer yàlla ci kaw asamaan kon asamaan a ngi noonu yàlla bind taaral ko rafetal ko ci ay biddéew ak ay jant ak ay weer weer yi ñuy gis ci kaw asamaan jant yi ñuy gis biddéew yi ñuy gis yàlla moo ko fa def te yépp dañuy dund yépp dañuy liggéey ñi jàng géographie xam nañ biddéew yi nekk ci kaw asamaan lu ñuy daw weer yi lu ñuy daw limite yi seeni lumière seeni vitesse te ci kaw amul ku fa nekk di contrôler machines yi te machines yi nekk ci suuf diggante avion bateau train ak lan yooyu yëpp dafa am ay nit yu toog yor appareil bi su waree wàcc su waree taxaw su waree su waree jant bi kan moo fa nekk di ko di ko di ko di ko contrôler di ko jaarloo ci yoon di contrôler tàngaay bi pour bu mu yokk bu mu wàññeeku weer bi kan moo fa nekk di contrôler lumière bi yeneen biddéew yi kan moo fa nekk yëpp borom bi tabaraka wa taala moo koy contrôler benn du raw moroomam benn du laal moroomam benn du mbëkk moroomam wa kullun fi falakin yasbaxuun benn bu nekk mu ngi ci benn falak benn espace benn yoon di ci daw du dem ci moroomam jamais kon loolu moo tax yàlla di ñu xoolloo asamaan di ñu xoolloo suuf pour lan pour ñu dolleeku ngëm waaye pour ñu delleeku yaxiin ñu xam ne kii mooy yàlla soo bàyyee asamaan nga ñëw ci suuf foofu ngay gën a gëlëme foofu ngay gën a waaroo foofu ngay gën a xam ne yàlla dong dong dong dong moo mun a sàkk suuf amul keneen waaye doomu aadama nag li tax du waaru ci xool asamaan wala xool suuf li tax doomu aadama du ci waaru mooy mbir mi da koy jege nit ki lu ko jege du ko gis du ko xam mbir yi def ñoo jege ñaareel ci lu ñu war a jële tey ci sunu dars yi ñu tiim mooy istihbaab tilaawat haadihi l ayat sopp nañ ci ab julit muy jàng aaya yi inna fi xalqi lsamawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wannahaar la ayatin li uli l albaab alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qucuuda وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سقنا نجاب جلد ميجان آيه كان بويه وخاج قدي بلا ستانكي دلال سوف bëgg nañ nga jàng aaya yi bëgg nañ boo jógee war a naafila guddi nga jàng aaya yi loolu sax na ci xadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadis boo xam ne buxaari ak muslim solo nañ ko mu jëlee ko ci ibnu abbas mu ne annahu naama laylan inda xaalati maymuna qaala fa taxaddasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma ahli saa summa raqada فلما كان ثلث الليل الأخير قعد فنظر في السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض ثم قام فتودع واستسن ثم صلى إحدى عشر ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس الصبح صلى الله عليه وسلم يونتي بدو سون موروم ñu ko ko jéem des fa moo tax boo bu ñu toogee tey ñu naan diw diw amul moroom dañoo alku rek diw amul moroom diw diw diw amul moroom te diw moomu ñu naan amul moroom kat li mu am kat ndeysaan ci barke yonent bi la ko amee ci barke yonent bi ci bëgg bi mu bëgg yonent bi walla jullit gi mu nekk jullit ci la amee lii mu am nit ñi léegi jël ko rombal ko yonent bi ba bëgg ne moom moo gën yonent bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci hadis boo xam ne mu ngi ci buxaar yi mu ne yonent bi dafa dem guddi di waxtaan ak benn tàntaam bu tudd Maymuuna toog fa di waxtaan ak ay waa këram sallallahu alayhi wa sallam wala rek daraja bu ko yàlla may mais terewul day dem ak waa këram di waxtaan ak ñoom ay mbokkam munoon na munoon na toog du seeti kenn moom dañ koy seet si rek waaye déedéet parce que yàlla daf ko yónni pour mu jàngale innama bu istu mualliman yàlla daf maa yónni pour may jàngale dafa war a jàngale julli ji nu ñuy jox koy mbokk mu dem seeti tàntaam boobu tudd Maymuna mu toog di waxtaan ak ñoom heure saa après mu tëdd ma raqada bi mu tëddee ba guddi gi xaaj falamma kaana sulusul leyli ba guddi gi xaajee ñetteelu xaaj xaaj bu mujj bi moom yonent bi daal di jóg bi mu jógee fi mu tëdd fi bi mu jógee nii rek dafa toog mu siggi xool ko mu daal di jàng aaya yi inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi lleyli wannahaar la ayatin li ulil albaab mu daal di wàcc fa mu tëddoon summa qaama fa tawadda mu jóg jàpp li mu jàppee mu socc summa salla ihda asara rakka mu julli fukki rakka ak benn ci guddi gi naafila bi yonent bi di sëlmal fukkeelu rakka beeg benn bilaal mi ngi nodd alsalaatu xayru min annawm a allahu akbar fa salla rakaatain bi bilaal noddee ñaari rakkaam ba pare yonent dafa julli ñaari rakk mu daal di génn dem ca jàkka ja jiite waa jàkka ji julli suba sallallahu alayhi wa sallam kon guddi gi lim fi nelaw est-ce que bëri na kon loolu lañ bëgg ab jullit bëgg nañ ci moom mu jàng bu yeewoo balaa ay tànkam di laal suuf fi mu tëddoon day toog xool kaw asamaan daal di jàng ay yooyu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngoon bokk na ci li ñuy jàng ba tey li ñuy jëlee tey sunu ñetti juróom-benn aaya yi mooy istihbaab zikrullahi fi kulli xaal min qiyaamin aw qu'uudin aw ittijaa bëgg nañ ci aw jullit ab jullit sopp nañ ci moom muy tudd yàlla ci waxtu wu nekk tudd yàlla waxtu wu nekk boroom xam-xam yi dañ naan zikrullah mubaax fi kulli zaman wa fi kulli makaan tudd yàlla dafa baax ci place yépp ba mu des duus tudd yàlla laajul njàpp laajul jublu penk laajul jublu sow tudd yàlla daal ab jullit daf ko war a tàmmal làmmiñam saxaaba ba mu ne yonent bi principe bu lislaam yi dafa diis sama kaw duma mën a def yëpp de jox ma dara rek mu ne ko laa yasa laa yazaalu lisaanaka ratban bi zikrillah sa làmmiñ bu mu dañ di tooy tudd yàlla nga tudd yàlla foo nekk sa làmmiñ bi day tudd yàlla kon bëgg nañ ci ab julit muy tudd yàlla lu bare bare bare fii kulli xaal ci jamono bu nekk kaana rasulullahi indi ay yaay Aysa moo nettali as-siddiqa bintu siddiq yaay Aysa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana yazkuru llaha ala kulli ahyaanihi yonent bi daan tudd yàlla jamono bu nekk day tudd yàlla kenn musu gis yonent bi toog te làmmiñam bi tuddul yàlla sahaaba yi sax ñoo nettali nee nañ nekkoon nañ di konteel yonent bi ci benn place ba mu toog kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi majlisin waahid ci benn place rek mu fay wax di tudd yàlla loo xamante ne doomu aadama sax du ko mën a takk waxtu wu nekk yonent bi doon tudd yàlla jamono ju nekk yonent bi làmmiñam mu ngi kole ci tudd yàlla loolu lañ bëgg ab jullit nekk ci waaye bëgg nañ boo toogee tuddal yàlla boo taxawee tuddal yàlla boo tëddee tuddal yàlla moo tax yàlla moo ko wax qiyaaman aw qu'udan wa ala junubihim mooy soo tëddee soo taxawee tuddal yàlla boo toogee tuddal yàlla boo tëddee tuddal yàlla fexeel sa làmmiñ bi di tudd yàlla lu bare bari zikrullah mubaax fi kulli zaman wa fi kulli makan tudd yàlla moom laajul njàpp te tiyaaba yi ngi ci am kenn xamu nu mu doon laajul jublu penk laajul changé yére waaw laaju ko fu mu la fekk mun nga ko def ba mu des ay toilette moytul toilette parce que toilette ku fa dugg doo wax ñeenteel ci lu ñuy jàng tey istihbaabu taawuz min annaar bal wujubuhu walaw marra fil umr ndeysaan dina bokk tey mbokk yi ci la ñuy jàng mooy war na warugal gi ñu waral wala sopp gi ñu sopp ataawuzu min annaar jullit bi di muslu ci safara muslu ci safara naam ngay muslu ci safara ñu ne bal sax dafa war donte ne benn yoon ci sa dund nga wax allahuma ajirni min annaar aauzu billahi min annaar yow yàlla yàlla mu musal ci safara malik ibnu dinaar wala kenn ci gaa yu baax yi da doon wax ne bu ma amoon ñu ma dimbali moom danaan bàyyi ba guddi gi xaaj bu nit ñi nelaw mu ñëw ci fenêtre yi fëgg bu borom néeg bi yeewee wala mu ne ko kan la mu ne ko annaar annaar annaar daal di jàll moom loolu rek la doon liggéey ñu ne ko waa lii nag mu ne bu ma amoon ñu ma dimbali ma leen di fay danaa tas nit ñi guddi gu nekk ñu tasaaroo ci mbedd yi di fëgg kër yeeg fenêtre yi di bàyyiloo nit ñi xel safara moo tax ñu ne bëgg nañ ci ab jullit bal sax dafa war ci moom muy muslu ci yàlla ci safara donte ne benn yoon la ci dundam mbokk yi mbokk yi safara jar naa muslu de jar naa muslu ndax sunu yaram yi xam ngeen ne attanul safara sunu yaram yi attanul safara de benn waaye dafa am xar rabiatul adawi gis waa ji waa ji rey xar mi fees toj toog di lakk di lekk rabia daal di jooy jooy yu métti bi mu jooyee waa ji ne ko waaw yow boo bëggee ci yàpp bi rek danga ma laaj ñaan ma may la moo gën ngay jooy jooy yi kay jaru ko mu ne ko jooy ma loolu la jooy ma li ngay lekk yàpp bi de mu ne ko looy jooy mu ne xar mi bi nga koy lakk dafa dee ñun yowmal qiyaam buñ ñuy lakk dañuy dund wallaay jooy xar mi yow bi nga koy lakk fekk mu dee yëgatul métit bi wala mu ne ñun yowmal xiyaam bu nuy lakk nag ñu ngeeg sunuy ruu ak sunuy bakkan allahu akbar loolu mooy wax bi safara moom lu mu tuuti tuuti xejul ci ñun loolu moo tax boroom xam-xam yi ñu ne xel mooy contrôler lépp lu nekk ci doomu aadama xel moo koy contrôler lu mu gaaw gaaw gaaw gaaw même accident buy ñëw même bu dee seconde la xel mi dina am réflexe ne ak dara am na ñu ne fenn dong la xel amul attanul réflexe fenn mooy boo dëggee xalu safara boo ko dëggee balaa ngay teggi foofu foofu xel du fa yegg ni nga tëbe xel mënu ko contrôler moo tax nit mënul dékku safara nit mënul dékku safara comme mënuñu ko nag nanuy muslu yàlla mu musal nu ci nanuy jéggul sunu boroom balaa mu nuy dugal safara loolu tey dinañ ko jàng ci ay yi nekk sunu kanam mbokk jullit yi danañ jàng tey mashruiyatu tawassulu ila allahi taala bil imaani wa saalihi al amal juróom benn aaya yi nekk sunu kanam dinañ ci jàng tey yoonal gi ñu yoonal nga ut moyen loolu ñu naan wasiila nga ut wasiila bu lay yóbbu ci yàlla waaye wasiila boobu lan lay nekk bil iman wa saalihil amal gëm yàlla ak jëf ju baax xam nga ñun tey bokk na ci li ñu tardeel ñun Sénégal jàpp wasiila benn nit la buy jàpp sa loxo ba ëllëg yowmal qiyaam mu daal di ubbi aljanna daal di ne yàlla kii na dugg moo tax gars yi di fire aaya ba aaya bi wax wasila wabtaxu ilayhi l wasila ñu ne wasila mooy doomu aadama fekk wasila moyen la bu la yóbbu ci yàlla julli ci la bokk mën naa nekk sax dëgg waaw doomu aadama mën na nekk waaye ban doomu aadama la mooy bi jàpp ci sa loxo yóbbu la ci yàlla paa bi jàpp sa loxo yóbbu ci tool yi paa bi ci jàpp sa loxo yóbbu ci làmb paa bi jàpp sa loxo yóbbu ci ay caaxaan ki jàpp sa loxo yóbbu la yàlla kooku mooy sa moyen mooy sa wasila ndax moo la moo la yóbbu ci yàlla moo la jaamuloo yàlla laa bëgg a wax ci wax jooju moo tax ngay jàpp moo tax ngay julli moo tax nga bàyyi lu bon moo tax ngay saraxe moo tax ngay lépp looy def ci lu baax waa ji moo tax bëgg nañ ab jullit mu ut lu ko yóbbu ci yàlla ci jaamu yàlla yu baax yi loolu nag li ci raw mooy al iman wal amalu saalih mooy ngëm yàlla ak jëf ju baax moo gën a gaaw yóbbu nit ci borom bi tabaraka wa taala bokk na ci li ñuy jàng tey doom waa mbokk yi mooy faddlul hijrati wal jihaadi fi sabilillah ngëneelu gàddaay ak ngëneelu xeex ci yoonu yàlla gàddaay est-ce que gàddaay am na wala amatul ah gàddaay mi ngi am léegi wala amatu gàddaay mu ngi amee ah jàng nañ laa hijrata baadal fathi de ginnaaw ubbi nañ màkk gàddaay amatul gàddaay am na ba léegi wala amatul ah am na benn waay de fii la woon tafsir mais man de damay gàddaay mais foo jëm mu ne ma Gàmbi gàddaay kañ la nit di gàddaay fi nga nekk di jaamu yàlla buñ la bundu xataalee buñ la xatalee ba mënatoo jaamu yàlla yow sàkku nañ ci yow nga gàddaay génn dëkk ba nga nekk kañ lañ la wax nga gàddaay mooy dëkk ba nga nekk boo bu amul ay jaamukaayu yàlla kenn jaamootu fa yàlla déggatoo nodd gisatoo jàkka génnal waaye nag waroo gàddaay fekk nit ñaa ngi julli jekki-jekki rek laxas ay bagage yoonu foo jëm nga naan maa nga jëm mari déedéet toogal ci Sénégal gi dugal ci biir nit ñi wooteel nekkal wootekat solal mbubbu yonent bi alayhi salaatu wasalaam xanaa xamu leen ne dëkk bi li tax mu mel nii mooy ñun la man mii ci laa bokk yéen ñii toog ci ngeen bokk ñun ñii ñu ñoo tax dëkk bi yàqu d'accord ngeen ci wala d'accord leen yéen ñii jàkkaarloo man yéen a tax dëkk bi yàqu ndax kenn ci yéen solul dàllu yonent bi ak dàllu saxaaba yi ku nekk dafa noppi kenn ci ñun du waaraati koo wax mu ne ah sama bopp doy na ma loolu du diine yonent bi lan la waxoon balligu anni wala waaya fal yuballighi shaahidu minkumul ghaa'ib fa zakkir in nafaati zikra fa zakkir innama anta muzakkir fa zakkir bil qur'ani man yàlla da war ñu fàttali ay fa zakkir kenn xamu nu mu toll ci alquran ñun ñëpp ñu noppi kenn ñun du wax ba sa biir kër sax doo doo wax da ngaa noppi da ngay gis ñoo xam duñu yeewu julli fajar nga noppi te bu buñ yekkee ndogu bi buñ doon nelaw nu ñuy def dañ leen di yee bu ñuy séddale dara ci biir kër gi ñu nekk fa nu ñuy def dañ leen di jox bu jaamu yàlla jotee nga naan non man dama bañ problème te parce que bu ma leen yee léegi ah ñu naan ma man dama ëpp waaye yow man may dajji bunt yi ñu naan lan dama la yee maa lay dundal maa lay jox nga lekk maa lay jox nga naan ci sama responsabilité nga nekk su la loolu gêné génnal utal foo dem boo xam ne boo fa tëddee kenn du la yee fajar bal sax ñooñu dañoo tuuti waaye ñun sax sunuy soxna sax am nañ ñoo xam ne ci ñun ñemuñu yee seen soxna jógal julli fajar da nga xam nga ne kon yow doo ndogu fan lañ jëm te ñun ñu nañu da ngeen war a nekk ay wootekat xanaa xamul boo yee boo yeetawul tey suba yow di nga am problème xanaa xamul boo dégluwul jaamu yàlla suba di nga am problème noppi gi ñu noppi yàccaaral moo tax dëkk bi lakk mel nii ba pare kenn encouragé tul nit ñi sax ci lu baax ba lu bon lu bon kenn encouragé tul lu baax lu bon rek lu bon keroog fii la benn xale toog xaw ma ñëw na tey xaw ma ñëwul dégg nga nee na kii nee na ma papaam nee na ko bu ñëwatee fii dina ko dóor gis nga léegi moo tax gisuma ko ñaari fan yëpp léegi moo tax xale bi ñëwatu gis nga wallahi lazim gis ngeen naan kuy jaamu yàlla da ngay gaaw a deeg nii la tool wala mu ëpp kii tuuti xam kii nekkatul xale xoola kooku jub jaar ci yoon bu baax baayam di ko tere dem jàkk di ko tere ay yeewu fajar ak boo boo jógee da ngay da ngay déranger nit ñeeg bal sax léegi yamatu fa gis ngeen kii moo ko wax nee na papa yee ko ne boo dematee foofu di nga dee léegi ñëwatul gis ngeen mi ngi nii leer na nañ bu jógoon léegi commencé dem fajar géej yëkkati ay poids su ko papa jee la mu ne ko dama bëgg a nekk bombardier mu ne ko góorgóorlul gaawal billaahi loolu la koy wax gaawal léegi nga tabaxal ma kër gi fu ñu jëm su nit ñi def lu baax ñu leen di xeex xale bi dafa war a ñëw na ko dóor wallahi bu ma ko gisoon ma ne ko mu ñëw lan la xoolal lool rek tere sa doom jaamu yàlla allahu akbar ba pare ñu ne Sénégal dina dem ah mi ngi nii kenn du sori bu ñu sori sax mu ngi nii seede yaa ngi nii ndeysaan xale boobu day ndeysaan bu demoon fecc bu naanoon sàngara bu doon def lu bon xoola kenn du ko wax dara keneen ki mbër la bëggoon nekk gars yi di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba mu ñëw ci dars yi di déglu di jàng mu commencé bàyyi dars yi xam nga lu papaam wax waaw xale daal moom bu ci tolloo dafa war a wuti xaalis waaye nekk fi di xëccoo ay jàkk bu bu xarit di ñëwee di ko jël si pour jàng si mu ko mu leen di gaaruwaale waaw ndeysaan ndeysaan nga defe ne mag ñu mel noonu bu ñu bëree ci dëkk fu dëkk boobu jëm dëkk boo xam ne mag ñi bëgguñu gis xale yi di jaamu yàlla ah booy jaamu yàlla lay ci tegal ay baat ay wax ak di la digi duma oh am na ñoo xam ne day bu ñu gisoon xale boobu ñu koy jaay dañ koy jënd am naa benn papa génn na àdduna yàlla na ko yàlla yërëm sama papa la woon ci dëkkaale ñoo bokkoon koñ dëkk ci moom laa gisee njëkk a gisee kuy julli daal di xabdu jël ay loxoom teg ci dënnam maa moom dañ daan ànd fajar dem jàkka bu ñëwee ndeysaan mu ne ma kaay kaay ma toog mu ne ma doom ma ne ah mu ne ma wallahi sama xar yi ñoo ma gënal sama doom yi sama xar yi ñoo ma gënal sama doom yi waaw sama xar yi ndeysaan mu ne ma doom xoolal quartier bi yëpp xoolal mbedd mi rek fii ba koñ bële mën na 15 maison mu ne ma gisoo fi kenn ñu yeewu julli ji fajar lu dul maar yow rek ñun ñaar kese loolu may wax yàgg na de mën na léegi ñeent fukki at xoolal quartier bi yëpp yëpp a ngi nelaw kenn du yeewu fajar dem jaar kenn du yee njabootam ñëpp a ngi nelaw ñenn ñi sax bon dañuy terroriser xale yi waxoon naa leen fi benn xisa boo xam ne paa bi day dem fajar bis bu nekk di dem di dem di dem jàkk waa kër gi mere ko ndax bu yeewoo ni muy ubbee bunt yi ni muy préparé ñu daan dem tëj buntu kër gi nëbb caabi ji pour paa bi du yeewu fajar dem jàkk mu yeewu force porte bi fekk mu tëju mu wër caabi ji gis ko mu yëg ci miir bi tëb daal di daanu tànk bi damm loolu mooy sabab mu dee loolu mooy sabab tànk bu damm boobu moo ko jàpp bàyyiwu ko bàyyiwu ko ci métit ci métit ba mu dem alaaxira miir bi la yëg daa ne man du ma julli ci kër gi moom fekk jàkk jàng fi mu tëb ñu bëri dañ naan xanaa du Sénégal parcelle la bokk pour ngeen xam ne Sénégal parcelle keroog wax naa fi benn waaye wax turam fan lañ jëm fuñ jëm paa boobu bu ko doom ji tàggu woon ne ko papa dama bëgg a dem 4 heures du matin stade rangi parce que Bombardier ak Balla Gaye dañuy bëri danaan ko dawal bar nga am place damay yeew fajar dem jàkk mu ne ko boo fa demee di nga dee xaar ba nga jógati fi rek fajar di yeew di dranger nit ñi parce que paa bi du yeewu fajar loolu kese la day am gàcce doo julli ji sa doom di julli nga neelu gàddaay gàddaay kañ lañ koy def mooy buñ ñu bundu xataalee boo nekkee ci kër ñu xatal la comme xale bii ñuy wax léegi nii am na droit génn da lay bagage am uti fu ku ko ku ko ku ko ku ko fat pour mu mën a jaamu yàlla man de bu ma ko gisoon bu nangoo génn ma fat ko sama kër wallahi alazim bu ma ko gisoon tey mu nangu gàddaay dama ko yóbbu sama kër ñooñu barke la ci kër di loolu di xéewal nga dëkk ak ay sindax yoo xam ne duñ yeewu fajar julli nga gis kuy jóg di julli xanaa xamu leen ku dul yeewu fajar sindax la bal sax sindax moo ko gën waaye ngëneelu jihaad ci yoonu yàlla xeex ci yoonu yàlla ba nu faat la ngëneelam dara gënu ko keroog bi ñu tollee ci ay waxoon nañ tiyaaba yi ku dee ci yoonu yàlla lu muy am kon gàddaay ak jihaad benn boroom xam-xam bu mag bëggumaa tudd turam ndax ay mbir waaye doon na defal soldaar yi mujahidin Afghanistan mu leen di defal formation mu ne leen yonent bi ñetti formation la defal saxaaba yi mu islamiser àdduna bi ñett ñu ne ko bu njëkk mooy iman ñu ne ko ñaareel mu ne gàddaay ñu ne ko ñetteel mu ne jihaad te ñett yooyu mu am moo tax dundam yëpp dafa jihaad ba ñu mujj a wax rey nañ ko wala reyuñu ko waaye dund mi dafa ñaar te multi milliardaire la woon te soo ko gisee du feeñ ci yaramam du feeñ ci jëmmam waaye bu muy defal mujahidin yi Afghanistan formation ñett la daf leen ne lu njëkk mooy balaa dara nañu am ngëm yàlla ba pare al iman mu ne yonent bi bi mu nekkee màkk ñett fukki at ak ñett la tax la tabax iman loolu moo tax ñi nekk màkk amul munaafiq naafeq yi fu ñu nekkoon madinatu munawwara wëral saxaaba yëpp wëral ñi nekkoon màkk yëpp amul munaafiq ndax boobu dañ leen a formé bañ ne keng moo tax ñu mun a bàyyi lu nekk bàyyi tool bàyyi jabar bàyyi ay kër bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi keroog ba leen yonent bi ne acca ñu gàddaay ñu mun a bàyyi loolu lépp départ bàyyi daal di koy bàyyi dem gàddaay gis nga kon ngëm yàlla gi ba mu dëgëree lu ci yonent bi teg mooy gàddaay bañ gàddaayee ba toog Madina ba mu ne kenn jihaad bi mu wàccee kenn ci ñoom waxul dañoo jihaad mu ne ñett yi bu ko julli ñi deful dañuy sono seen bopp loolu moo ñu manqué amuñu iman gàddaayoo ñu sunu bànneexi bakkan moo tax duñ nangu jihaad jamais jamais julli di jihaad te pourtant gis nañu sax ñu jihaad de démb ci mujj xaw ma tey parce que tey déglu ma information diggante Israël ak Palestine ñaata palestinien lañ rey ci weer koor geeg léegi ah 265 ñaata israélien lañ rey ah xoolal fu ñu reyee fu ñu reyee 200 jullit 265 musulmans yëpp ñu rey leen ci weeru koor ñee bu ñu war a naan moo ñaari nit ah ñaari nit lañu rey ñaari nit ñun jar nañu tiit suñu bopp de jar nañu tiit suñu bopp jar nañu tiit suñu bopp laaj suñu bopp ndax ñun gëm nañu yàlla loolu jullit bu bu nekk ci àdduna bi di fi fanaan tey war ngaa laaj sa bopp est-ce que man gëm naa yàlla xam ngeen Israël nu mu toll ah xam ngeen Israël nu mu toll benn boroom xam-xam dafay wax israéliens yi nu ñu toll ci àddina bi wala seen dëkk bi boog nu mu toll mu ne xam ngeen dee dee mooy loolu ñuy ñëw biir ni naa di dugal ci seen baaraam yi pour balaa puso bi di leen jam xam ne benn weñ bu ndaw bu tudd dee moom la ñuy solal seen baaraam yi comme mbax ne ñooñu ñuy ñëw am na ñu ñëw biir ni naa yére biir naa yi ngeen di gis am na ñoo xam ne loxo bu ñu ko ñëwee ba pare ba war la ko da nga yaakaar ne machine na ko ñëw ñooñu nag loolu ñuy dugal seen baaraam balaa puso bi di leen jam nee na bu jullit ñëpp jëloon ku nekk benn dee bu toll noonu nga sol ci ndox ñun jullit ñëpp ñu ñëw ba Israël suñ ko këppee ñoom ñëpp dañuy lab dee wala loolu dafa sori misaal boobu du ngeen ko dégg bu jullit ñëpp jëloon ku nekk benn xottu gerte boobu yomb na ñu def ci ndox ñun jullit ñëpp ñu ñu ñu ne ko nii yëkkati ko ku nekk yor sa xottu gerte ñu ñëw ba Israël bu ñu leen ko xëppee ñoom ñëpp dañuy lab dee dañuy lab dee kenn du rëcc kon ñooñu ñaata lañ bëri nañ waaw léegi ñooñu ñu mën a nekkee fii jur ñu nekk un milliard ak genn wàll ñooñu dañu duma y a quelque chose ah ñu jullit mën nañ deux milliards Égypte rek xajul ci Égypte xajul ci Israël Égypte mais gis nga loolu bokk na ci lu waral coup d'état bi ñu coup d'état frère musulman Égypte parce que daaw heure bii xam ngeen ne xeex amoon na mais demewuloon nii c'est parce que égyptiens yi ñoo ci dugaloon seen loxo président Mohamed Morsi moo dem ba foofu ci guerre ubbi frontières yi armée Palestine loolu moo tax ñu coup d'état ko du leneen du leneen amul beneen sabab amul beneen question ay peuple bi déedéet ba léegi peuple bi dañuy bañ ñu leen di rey ba léegi peuple baa ngi ci mbedd yi ba léegi fii ñuy wax ak yéen élection am na fa seetaan ngeen élection yi élection amoon na Égypte bi ñuy fal waa ji si si lan ne lan la kan moo ko fal Égypte population bi ñaata lañ 85 millions Égypte 85 millions Israël ñaata millions lañ 6 millions ak 85 millions benn dëkk boobu rek wala waxuma sax ñu ne jullit ñi waxuma sax ñu ne jullit ñi kaay leen déedéet bu ñu armé woon Égypte rek 24 heures Israël dootul amati ci kaw suuf mais maal asaf ndeysaan ay jullit yu mel ni ñun la ñu jël ñuy rey ay jullit di yëkkati ay Israël fi mu nekk nii xare bi fan lañ koy négocier Égypte lañ koy négocier Égypte lañ koy négocier fi mu nekk nii xare bi waaye Égypte ñoo naan bàyyi leen xeex bi waaw bàyyi leen xeex avancé bàyyi leen xeer yi ngeen di sànni xoolal ñi yor ay xeer ñi yor ay ay avion bombardé di bombardé ñi yor ay xeer ba pare ñu ne ñu ne borom xeer yi yéen a tooñ ba pare de deux mooy dëkku jàmbur la nu nangu Israël xam ngeen ne existé wul woon ci àddina bi France Allemagne Angleterre Amérique ñoom ñoo ànd Israël ñu ngi leen waroon yóbbu nu dëkk Afrique bi tudd di Éthiopie lan leen waroon yóbbu ñu lànk gars yi dajale leen ci àddina bi yëpp daal leen di yóbbu Palestine mais amul woon Israël existé woon ci àdduna bi dëkk yi am doole ñoom ñoo jël groupé leen dugal leen ci ay avion mais Éthiopie lañ leen préparé loon ñu lànk ne demuñu fa am na juif sax yu ñu jële woon Éthiopie ñu ñuul mais biñ leen yóbbee foofu ñu ñu weex ñi dañoo lànk ne ñi duñu ay juif ñooñu ñibbisiwaat maanaam lii tam suñ problème mooy ñun duñ jàng histoire duñ déglu duñ xam mbir yi fan la tàmbalee ak fu mu jëm waaye xëy na xëy na bis a ngi ñëw li yàlla di digge mu am incha allah xëy na bis a ngi ñëw bis a ngi ci bis lii lépp dina jeex waaye nattu la nag nattu gën te rëy ci àdduna ñuy mbugal jullit yi partout dans le monde partout chaque jour ma wax leen fii ci tafsir kaso bi gën a rëy ci àdduna ñu ciy mbugal ay nit ñan lañ fay mbugal nu mu tudd est-ce que am na benn kaso bu ñu tabax pour chrétiens yi ci àddina bi fa fan la nekk est-ce que am na benn kaso bu ñu tabax pour juifs yi fan la nekk kaso bu ñu tabax pour mbugal ay jullit jullit yëpp am na ñoo xam ne sax yëgu yëguñu sax loolu seen yaram dañuy tiim ci boolu ceeb dóor ba seen seen biir bi taxaw ba yenn saa yi sax dañu naan kii kan la na jóg sama kanam fekk seen biir la du ñu xalaat ay jullit yi ñuy mbugal ci àdduna bi dañuy lekk di naan di def lu nu neex di konta fekk ci quelque ci ci soo gestoo rek sa fenêtre gis say mbokku jullit yoo xam ne ndeysaan ñoom ci jamono xëdd ay bomb mu ngi tàkk seen kaw ci jamono ndogu ay bomb ñu ngi leen di largué ay bomb di rey xale ki jigéen ki mag ak ki oh sa yaram day daw yenn saa yi day dem ba dooru ñemee seetaan télé dooru ñemee seetaan image yi Israël Palestine sax dafa sori waaye Centrafrique musulman fanaanatu fa musulman fanaanatul Centrafrique waaw tey bu benn dëkk jógee ci dëkk jullit ñi ne day xeex ñu ne ñu commencé di leen tut di leen mais bu ñuy rey jullit yi kenn du wax ma loolu mooy wax bi xoolal Nigéria waaw Boko Haram li ñuy résister man gis naa benn sëriñ bu marché Kaolack la doxee ay tànkam ba Dakar bi mu ñëwee ñu yaakaaroon ne li ko tax a jóg lay wax mu naan waa Boko Haram nañ bàyyi li ñuy def na dem na dem foofu bu fekkee am na fit bu mu toog fii Sénégal naan Boko Haram bàyyi li ngeen def day dem day dem fële Nigéria nee na ana waa Boko Haram kaay leen ma wax ak yéen na dem bu amee fit noonu lay def bu fa yeggee bu fi dellusiwaat ci kees lañ koy def na dem foofu mun na leen ñëw leen ma wax ak yéen ñun lu nu war a wax duñ ko wax lu nu war ta wax la nuy wax fu nu war a far duñ fa far fu nu war ta far la nuy far di dóor jullit yi di sot te ñun ay jullit lan ndeysaan am na benn buur boo xam ne mooy mu'tasama al mu'tasam billah dafa toog rek benn waaye ñëw ne ko benn buur daal moo jàpp benn jigéenu jullit daa di koy pes daa di dindi kaala gi ci bopp bi mu ne waa bi mu ko pesee dindi kaala gi lan la wax mu ne dafa yuuxu daan ne waa mu'tasama woy man woo naa buuru jullit yi ne man woy naa woy woy woo naa buuru jullit woo naa ko buur bi daal di waat ne jël benn lettre bind mu ne lettre bi yóbbu leen ko ci moom bu ngeen demee ngeen ne ko 24 heures laa ko may su lib su bàyyiwul ndaw si dinaa ko indil armée boo xam ne première nit yi ci moom la ñuy nekk deux fin bi ki ci mujj ci man lay nekk armée boobu kon nan la ñu war a toll première nit yi ci yow la ñuy nekk yow deuxième ñi mujj ci armée bi ci fin bi ñooñ ci man la ñuy nekk waaye lettre bi ya gudde ñu libéré ndaw si ah loolu mooy jullit bu nuy lor say mbokk da lay métti da nga koy yëkk waaye jullit ñoo xam ne ndeysaan amoon naa benn dëkkandoo boo xam ne jamono yi américains yi di dugg Afghanistan yi bombardé bu ñu bombardé ndeysaan ay nit ñu am sikkim ñu dee dafa may woolu dafa may woolu ne ma kaay xool sa gaa yi ni leen def tey kaay damay tóori ñu ne ma kaay wuyu ma defa ne lu nekk la mu ñëw mu ne xoolal tey américains yi rey nañ leen yéen ak seeni sikkim ma ne ko lii rek nga may doyee mu ne mu ne waaw mu daa koy ñaanal daan delluwaat am na ci koo xam ne ndeysaan ci jamono afghan diggante Ben Laden ak États-Unis d'Amérique fu mu dajeeg ma nag ne ma Ben Laden américains yi ñu ngi lay wër de xoolal ndeysaan waaw xam nga loolu dañoo dem ba sunu conscience mooy dee léegi yow Amérique mu ngi xeex ak jullit yi yow nga far ak américains yi léegi yow lan nga ah yéen a àtte de est-ce que loolu xel nangu na ko ngay kontaan ci américains yi ñu ngi rey ay jullit xam nga lu tax parce que dañoo fexe ba gëm loolu la ñi ñuy rey ay jullit yu bon lañ te wallahi addina bi fi mu toll tey jullit ñi ñuy rey ñëpp a baax parce que lu tax ñu leen di rey du question seen bakkan de lu tax ñu leen di rey seen diine ñun ñi nga xam ne dañoo doy waar kenn reyuñu ñu ngi di toog partout nag laa wax foo gis ñuy rey jullit di leen bombardé rek jullit ñooñu dañoo bëgg a samp état islamique dañoo bëgg a dund diine su ko defee gars yi ñëw di révolter seen kaw waaye ñun ñi nga xam ne bëgguñu état islamique duñu bëgg état laïque la ñu bëgg ah naan ci sàngara yi naan ci ndox mi laal ci caga ji laal ci jigéen ñi dem fii dem flee ñun kenn duñu wax dara macha allah waa Sénégal yéen da ngeen a baax vous êtes modéré vous êtes musul bon musulman loolu la ñuy wax. kenn raxuñu dara ñu ngi ni toog xool leen dëkk yi nga xam ne yëpp jullit ñi jóguñu jëm ci lislaam kenn waxu leen dara waaye jullit yi nga xam ne dañoo jóg xool leen Somali boobu ba léegi ñaata at la ñu ne état islam rek wala dara du fi am benn gouvernement du fi jiite. Nigéria ngi ne Soudan ngi ne dagg nañ ko sax léegi deux. bii noor bi bii côté nekk ay musulman ñi nekk ay chrétien dagg nañ ko deux ah Syrie ngi ne yàqu na Syrie moom kenn dundatu ko Irak a ngi ne Afghanistan ngi ne non c'est parce que ñooñu dañuy jógee dañuy samp l'islam waaye ñun ñi nga xam ne dëkk yi nga xam ne l'islam ñoru leen foofu yëpp ñëpp ñëpp amu ñëpp ci jàmm lañ nekk dañuy lekk ba naan di di di di xarang di tëdd di nelaw kon loolu mooy ngëneelu jihaad bokk na ci li ñuy jàng mooy al musaawa bayna al mumin wal muminat fil amal wal jaza yàlla yemale gi mu yemale way gëm yàlla yu góor yeeg yu jigéen yi ñoo tolloo gis nga da ngay jàng léegi nii ci sunu société yi nu ñuy dundee ñun Sénégal nga gis ñuy fippuloo jigéen ñi daan leen ne l'islam da leen a noot parce que tolloowu leen ak góor yi tollalewu leen ak góor yi ba loola da sax ci sunu liste campagne électorale da ngay gis ñu ne bépp liste boo xam ne amul parité liste boobu duñ ko valider tey ci loolu lañ tollu Sénégal di fippuloo jigéen ñi utal ko ay association yeewu yeew yi am na association bu tudd yeewu yeew yi maa ñoom yeewu nañu dañuy ñëw di yeew yi jullit yu jigéen yi ñeneen ñi tudd lan fippu am na association bu tudd fippu mooy lan mooy fippu leen génn ci lislaam génn leen ci biir kër yi waaw tas leen seen musóor yi ci seen bopp yi def leen boppi neen paccal leen dangal leen génne leen léegi dem nañ ba ba Sénégal ji- jigéen woo dootul ah bëree tudde wala jigéen solatul yére daanaka weeru koor gi sax yenn saa yi am na ci ñu baax sax ñu changé yi comportement mais am na ñoo xam ne hmm, boo leen bàyyiwul di xool rek léegi nga ñàkk koor amul benn changement fu ñu jëm nga bëgg a nekk jullit bu jigéen ba pare di dund occident li ñuy dund nga bëgg a nekk jullit bu jigéen am occident nekk sa royukaay waaw en tant que Fatima Fatima boo xam ne dundam yëpp occident la wallahi wallahi wallahi barkaati démb matul gurul ñetti fan ñeenti fan ab jullit bu jigéen moo ma woo États-Unis d'Amérique la nekk mu ne ma damaa demoon ndogu ci sénégalais yi dañoo invité woon ndogu sénégalais yi nekk États-Unis ñu dajaloo fenn di ndogu waaye bi ma fa demee ndogu mi dafa yàqu ma ne ko lu ko yàq mu ne ma dama yegg seeg sama muuraay man ak sama doom rek benn sénégalais ne ma yow yow yow xam nga yow mbokk benn la den nga yow yow américain yaa ngi lay wër mu ne ma ma dal ci kawam ndogu bi yàqu femme bi ne ko yow la Amérique tiital moo tax nga bàyyi sa diine topp Amérique waaye man maa ngi lay yëgal ne ba ma nekkee jullit Sénégal bi ma ñëwee fii dafa yokk parce que fii laa muuroo man Amérique tiitalu ma yow la Amérique tiital dëgg la complexe waaw am nañ ñoo xam ne sax waxuma la Amérique waaye fii Sénégal rek yenn milliers yi bu ñu fay liggéey sax dootuñu wax asalaamaaleykum eh, bonjour eh, ça va eh, ay ay ay ay asalaamaaleykum sax léegi am nañ complexe dañu wala di di sol yenn yére yi non koo leen gis ñu ngi tubaabu yor ay clé dootuñu wax sax olof yenn borom xam-xam nee na yonent bi dafa dem yonent bi dafa jóge ci kaw suuf dem kaw asamaan dem ba toog ak borom bi ci ñenn ñi ah ci ñenn ñi mu del siwaat ci kaw suuf di lekk yàpp bu wow di tëdd ci basang di lekk tàndarma bu ñuul te dem na ba ci kaw wala am na ñoo xam ne Europe lañ dem rek ñëwaat changer seen langage dootuñu tëdd ci suuf déggatuñu seen làkk dootuñu lekk cere wax ñee cere déggatuñu sa wolof waaw ndeysaan allahu akbar yaa gis koo xamante ne ndeysaan def na Sénégal ñeent fukki at am bourse dem dem Europe ñëwaat rek wala États-Unis wala quelque part rek ñëwaat rek nga dégg naan non dama bëgg am ku ma ku ma taxaw dira parce que déggatuma olof bi bu baax quoi dama bëgg ñu ñu jottali ma waa ñu ñu ñu jottali. inna lillahi wa inna ilayhi waaw kooku moom nga xam ne fii rek la dem changé bu demoon kaw asamaan nag ah. bu demoon kaw asamaan bañ ne toog na dem na ba ci yàlla kon luy xew ah la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi danañ jàng yàlla tollale gi mu tollale way gëm yàlla yu góor yéeg yu jigéen yi fil amal ci jëf wal jaza ak fay julli jigéen ñaata rakk lay julli suba ñaata rakk la la góor di julli tisbaar jigéen ñaata lay julli gée kon ñoom ñoo yem weeru koor jigéen ñaata lay woor ñaata weer lay woor góor aji màkk jàpp mën a jaamu yàlla bi yëpp góor ak jigéen a tolloo amul fi yàlla daal yàlla waxee yow yow jigéen da nga woor ñaari weer yow góor na woor benn weer kon lan mooy ndeyu yàlla bind xam ci ay atteem yu ñuy yegg mu ne fii góor lii la fii jigéen lii la ñu jàpp ne loolu yàlla dafa jël góor favoriser ko ci kaw jigéen yàlla daa tollale góor ak jigéen ci jëf ak fay su góor jëfee jaamoo yàlla yàlla teral ko su góor nekkee kàccoor bañ a jaamu yàlla yàlla fay jigéen bàyyi góor loolu xissa bi pour ñu nettali leen ko mu leer doy na rek jabaru firaaw na ak firaaw na ana firaaw na ana jabaram te deewul lu yàlla tabaxal na ko soto bi ba pare rabbib ni lii rabbib ni lii indaka baytan wa najjini min firawna wa najjini min alqawmi zalimin mbokk yi bokk na ci li ñuy jàng tey ci tomb bu ñuy mujjee muy juróom-ñetteelu tomb bi ci juróom-benneelu aaya yi juróom-benn aaya yi mooy istihbab alwafatu bayna al abrar wa hum ahlu ta ahlu taati lillahi wa ras- wa li rasulihi bëgg nañ ab julit su ko dee dikkalee mu xam ne day faatu mu faatu ji ci nit ñu baax mu dem ba fu ñu baax nekk mu faatoo foofu kon lan lañu bëgg mooy àndal ak ñu baax ba bu dee ñëwee fekk la nga ànd ak ñu baax nga dee ci seen biir kuy dee ci ñun bu yeboo nga dee ci ñu biir ñu baax boo dee ci ay biir ay ba ay saay-saay ay bànneeg di nga am problème ñan ñooy nit ñu baax ñi mooy ahlu taa ñi topp yàlla ñi topp yonent bi ñi dëgg wa zalika bil xayaati maahum dundal ak ñoom waaw waaw soo dundandoo ak ay nit deendoo ak ñoom kenn du wax ne man damay nekk ci làmb ji ba dee dikkal ma ma daw dee ca jàkka ja mënul nekk de ah waaw mënul nekk boo bëggee dee ca jàkka ji àndal ak waa jàkka ji taxawal jàkka ji bis bu dee ñëwee fekk la waaw benn boroom xam-xam bu mag wala kenn ci nit yàlla yi la wala saxaaba la bu guddi jotee du tëdd ci kaw lal bis doom ji ne ko pap bu tax yow du tëdd ci lal doo nelaw guddi mu ne damay bañ malakal moo di ñëw fekk maa ngi nelaw damay bañ malaaka bi ñëw fekk maa ngi nelaw moo la du ma tëdd ci kaw lal mbokk yi bëgg nañ nit mu dem bu ko dee dikkalee mu dee ci ñu baax ñu topp yàlla ak yonent ñu dëggu loolu nag nu mu lay dikkalee mooy dundal ak ñoom li takuna alwafaatu bi iznillahi maahum soo dundandeek ñoom àndandook ñoom jëfandook ñoom bu dee ñëwee fekk la nga ànd ak ñoom ko defee ñu taxawu la sa ginnaaw sa dëj say dëj kenn du ci def ay bidaa kenn du ci def ay shirk kenn du ci bokkaale yàlla waaye bis boo dee ay saay-saay boo dee ñu defal la prise d'arme une minute de silence waaw bis boo àndeek ay caaxaankat ab footballeur bu deewee lu ñu koy defal une minute de silence waaw une minute de silence est-ce que sunna la jóg leen taxaw nit ñi taxaw ñu ne tekk après ñu ne waa baax na nit ñi cëppi cëppi jeex na loolu mooy ñaan bi une minute de silence ñaan la xanaa sax ñoom dañoo waroon nañ ko jàngal Fatiha sax waaye une minute de silence ñoom ne tekk deux minutes xaw ma cinq secondes. ñu ñu delluwaat seen activité loolu wóorul de une minute de silence wóorul de prise d'arme tamit wóorul yàlla rey ko ba pare ñu jël ay arme di tiire ci kaw loolu mooy dañuy xanaa dañuy xeex ak yàlla prise d'arme wóorul une minute de silence wóorul waaw li wóor daal mooy ñu teg la ci kanamu jàkka ji ñu ne allahumma innahu abduk wabnu abdik wabnu amatik kaana yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah allahuma in kaana muhsinan fa zidhu fi ihsaani wa in kaana musian fa tajaawaz anhu waaw loolu day gën a wóor mbokk yi bi iznillah loolu mooy juróom-ñetti mbir yu ñuy jëlee ci juróom-benn aaya yi aaudu billahi min alshaytan arrajim بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أهزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعدكم من بعد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يقول المولى إن في خلق السماوات والأرض borom bi nee na nekk na ci bind bi yàlla bind asamaan xalq asamaawaat wal ard nekk na ci bind bi yàlla bind asamaan ak suuf waxtilaafi leyli ak wuutale gi muy wuutale guddi wan nahaar ak bëccëg la aayaat ay kéemtaan li ulil albaab ñeel borom xel yi allahu akbar waaye nag borom xel moo fi amatul borom xel borom xel mooy koo xam ne xelam def ci xalaat mais ku abale xelam kooku du xalaat xel mi dootu ko jëriñ mbokk yi lan moo tax dof su tiimee ci bool bu fanaan bu nëb bu am cinquante ans dof tiim ci ceeb boobu di lekk lu tax dama laajte de lu tax dof di lekk ceeb bu nëb cere ju nëb toog ci mbalit di lekk salte bi ah lu tax xel mi moo fi nekkatul est-ce que yow ñeme nga loolu lu tax parce que sa xel ku amul xel nekkut nit moo tax ñu ne al majnun rufia anhu al qalam ku dof yëkkati nañ xalima gi ba mu wér amul bakkaar yonent bi ne laa diinu liman laa aqla la ku amul diine ku amul xel amoo diine dof amul bakkaar bu fekkee li ko dofloo feebar la lu bàyyi ko ci yàlla bàyyi ko cuwul ci moom bàyyi koowul ci moom amul bàkkaar borom bi subhaanahu wa taala dafa ne nekk na ci yàlla subhaanahu wa taala bind bim bind asamaan fi wujudihima min al adam asamaan ak suuf amul woon amoon na wala amul amul woon de fi bidaayatil xalq amul woon asamaan amul suuf yàlla rek moo fi nekkoon yàlla moo toog ba mu neex ko mu defar asamaan ak suuf mu kole leen ñu nekk benn mu toog ba mu neex ko ñoom ñaar mu tàqale leen moo tax mu bëgg ñu xalaat ci bind bi mu bind asamaan ak suuf ci ñàkk gi mu ñàkkoon moom yàlla mu toog ba mu neex ko mu amal ko mu toog ba mu neex ko mu tàqale leen ñoom ñaar mu toog ba mu neex ko mu def bii ci kaw bii ci suuf mu ne waxtilaafi leyli wan nahaar ak wuutale gi yàlla wuutale guddeeg bëccëg tuaqibuhuma haza yaji wa zaaka yazhab yàlla di leen changer bii day ñëw remplacer bii su bii ñëwee bee dem mbokk yi wuutale gi yàlla wuutale guddeeg bëccëg ñun lan lañ ci war a xalaat soo duggee ci sa néeg 3 heures du matin néeg bi nu muy mel day lëndëm soo bëggee néeg bi leer nooy def bi ngay taal làmp dégg nga bruit wala déggoo bruit ah dégg nga bruit lan moo la jox bruit bi contact bi Ah, Allah bi guddeeg bëccëg di changeante ku dégg bruit bi timis di génn di dugg tàkkusaan di dàqu guddi di jot bëccëg di dem ku dégg bruit ah déggu leen bruit déggu leen benn contact bu tàkk déggu leen benn machine bu bu yuuxu bu def benn son allahu akbar day jékki-jékki rek yàlla ne bëccëg acca demal guddi ñëwal guddi daal di ñëw su guddi gi jeex yàlla mu ne bëccëg ñëwal guddi dem te yow sa néeg bi rek boo bëggee changer guddi geeg bëccëg bi foog nga dégg bir wi ah loolu moo tax yàlla mu ne la ayatin kiimtaan a ngi ci li ulil albaab ñeel borom xel mi nee naa loolu changer guddi ak bëccëg dalailun waadix ala wujudillah nee na ay kéemtaan yu leer la yu ne fàng la yuy wane ne yàlla am na kan moo ñemee gis asamaan gis suuf guddi di ñëw bëccëg di dem nga ne yàlla amul ku ko defar est-ce que xel nangu na nga nga ñu julli ñu julli tàkkusaan ba pare nga dem léegi sa kër da ngaa tëjoon néeg bi nga ubbi rek fekk benn taabal bu ñu lal um rafet nga fekk benn bool ci digg bi bool bi ñu ngi ko muur nga ubbi gis ñu def ci ginaar ak soos ak mburoog pombiteer ak lépp ñu teg te da ngaa ubboon néeg bi de nga génn li ko ku fi indi ñu ne la moo fi indi boppam suñ la waxoon moo fi indi boppam sax doo ko lekk wala ah ah bu la ne boo ne waa eh lii nag ñu ne ah lii de ñun de xamuñu wax dëgg yàlla du dangaa tëjoon sa nekk xëy na lii moo fi indi boppam noonu nga koy yëkkatee wala sax nga reculer. oustaz salaamaaleykum. dama ubbi sama néeg rek. waaw loolu moom ah kaay kaay foo nekk kaay. lu ci oustaz moom. dara di. wallaay loolu moo lay won ne loo gis mu am dafa am ko ko amal. waaw Allahu akbar waaw waaw waaw mhm waaw aaya la waaw kaanata rattaqan fa fatahnahuma ay alxuraan la yàlla bi muy tàqale asamaan sax nga ñoom dañ naan benn big bang la désordre nag ban big bang xam nga lu gën a bon mooy li ma doon wax léegi ci aaya bi mooy ku abale sa xel boo jëlee sa xel abale ko doo normal xanaa xamoo sénégalais yi li tax ñu mel ni mooy dañoo abale seen xel dañoo abale seen xel yi ma wax leen lu tax ok bëgg nañu àjjana wala bëgguñu àjjana ñun ñëpp ñëpp bëgg nañu àjjana wala bëgguñu àjjana sëriñ yi bëgg nañu àjjana wala bëgguñu àjjana seen soxna yi seen doom yi taalibe yi ñun ñi ñëpp bëgg nañu àjjana groupe gi yëpp bëgg nañu àjjana lu tax bu ñuy bay ci tool yi doomu sëriñ bi ak jabar ji duñ bay taalibe yi rek ñoo may rek ci naaj bu tàng bi baas bi ku ko baas dugg àjjana ku ci waroon jiitu moom doo ko ci gis ana jabaram ana doomam ñen ñoo fay nekk dof yi ba pare bu mu pare ñu ne leen incha allah yéen ñëpp du ngeen àjjana ñee bëgguñu ko ñoom lu tax ñee ñëwuñu waaye ñii dañoo amale seen xel buñ too buñ ñëwoon xool mbir mi mbirum àjjana la dañoo war a xool ana ana waa kër gi ana ñi ñi ñi koy ñi koy liggéeyloo ana ñu ñu ne ah ñu ngi nii ñoom ñoom ñu ne ah lii kon dëgg la waaye nga ñëw ñu ne mbir mi mbirum àjjana la nga ñëw xool gisoo ci kenn ku sant li ñëpp caam ak saar ak soow lañ sant ak taal am na lu xew am na am na ñu ñuy nax am na ñu ñuy nax ñii ñuy nax nag dañoo abale seen xel ku abale sa xel ñu nax la moo tax jullit du abale xelam Tufayl ibn Amr day wax wax ju doy waar nee na damaa wàcc màkk rek ñu terroriser ma ba ma tiit ma abale sama xel waaw mooy dafa wàcc rek ñu ne ko am na ku nekk kaaba gi di wax mooy tandikul soo koy déglu rek mu lay tàqaleeg say mbokk mu ne ma jël witteen daa di saañ samay nopp loolu mooy abale naa sama xel jullit du abale xelam xel mi yàlla daf la ko jox pour lan pour nga xalaat gis nga la ayatin est-ce que est-ce que normal na nga yeewu guddi gis asamaan si ni ko yàlla bindi ak biddiw yi étoiles yi fa nekk nga xool suuf ni ko yàlla bindi nga xool guddi di dem bëccëg di ñëw nga ni non lii c'est c'est big bang ah c'est non di théorie yeneen théorie loolu xel nangu na ah loolu xel nangu na ko asamaan lii du asamaan dara amul benn boroom xam-xam dafay waxtaan ak benn waaye bu mu doon discuter ci yàlla am na wala yàlla amul yàlla am na wala amul mu ne ko dañuy am rendez-vous man ak yow ci ginnaaw dex gi ki doon weddi ne yàlla am na dem rendez-vous teg taxaw di xaar ki ko bëggoon wan ne yàlla am na daal di tardé waa ji toog fa lu yàgg waa ji daal di xuus gaal gi daal di dem fekk mu toog mu ne ko gis nga yow lii laa muy nga ne ne ay jullit yàlla am na yaa ngi dangaa tardé ah commencé waa ji nekk fa di wax ba bari waa ji ne ko waa xam nga tax ma tardé dama ñëw ba ci tefesu gaal gi tefesu géej gi rek dex gi may xalaat lan moom ma war a yóbbu ma jékki-jékki rek gis ay bant yu ñëw di groupe bant yi jékki-jékki rek tasaaroo rek daal di former forme gaal rek daal di daaj seen bopp rek ma daal di na cëpp ci gaal gi rek gaal gi mu ne xoolal xoolal kii li may wax kii mooy dof yow yow gaal mun na daaj boppam mu ne ah gaal kay mun na daaj boppam mu ne loolu nu mun nekkee adduna bi du moo defar boppam asamaan du moo defar boppam suuf du moo defar boppam biddéew yi du ñoo fi indi seen bopp garab yi du ñoo fi indi seen bopp géej gi du moo fi indi boppam kon kay gaal mun naa defar boppam walla walla ah gis nga kee kee daal di yeewu parce que abalewul xelam waaye ñun nag dañoo abale suñu xel yàlla mu ne julli leen woor leen pour ngeen dem àjjana benn waaye ñoo mu ne bul julli bul woor boo deewee dugg àjjana duñu julli duñu woor bu nu deewee dugg àjjana di tëgg di fecc danga abale sa xel boo abalewul woon sa xel doo dégg loolu danga ko abale suñu xel yi ñu abale nañ ko indiwaat li gën a bon ci àdduna mooy xam nga sa portable bu nu la ko tafoo bu nu la tafoo sa portable mën ngaa liggéeyaat deux mois nga amaat portable wala waaye bu nu la tafoo sa xel xam nga nooy mel comme dof boobu toog ci ñamu mbaam di lekk te xel mi du tey lu la indi rek da nga naan dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la rek est-ce que sa xel nekk tuuti dañ laa tafu sa xel lu la mën a wax dëgg la luñ la wax dëgg la diw moo ko wax dëgg la diw lu mu wax dëgg la sadaxta dëgg la parce que da ngaa da ngaa sa xel mi moo fi nekkatul yaag dof bee di lekk ñamu mbaam nga xam ne day tibb dànk sax yi di wadd sa waay muy sàqam yëfi neex mu naa mu naan ni nit ñi nit ñi moom ku ko romb daw ku ko romb doo taxaw de da ngay daw la ilaha illallah moom mu naan leen di dese kaay lekk xoolal noonu ngay mel boo abalee sa xel sunu xel bu ñu ko joxee parce que yàlla dafa ñu ko jox jumtukaay la pour ñu mën a ràññee gis nga tey boo ne woon benn kër nga egsi asalaamaaleykum ñu ne waaleykum salaam exil exil jàlla ci saal bi nga jàlli saali fekk ndaw si di teg kafe ndogu ci gaz baa ngi nii mu ne toogal fooy toog fooy toog lu tax waxu la toogal ci fitee dafa ne toogal rek to do dew toogoo ci gaz bi dañ la ne toogal rek lu tax toogoo ci gaz bi ah parce que abale woo sa xel da ngay ñëw ci fete allahu akbar waaye waaye jërëjëf waaye gëj na la gis nga ne maa alhamdulilah waaye gaal ci ndogu bi lu tax tegg woo marmet bi toog ci gaz bi parce que abale woo sa xel gis nga boo abale woon sa xel doo dugg ci néeg bi ci buntu kër gi lañ naan téye leen ko téye leen ko téye leen ko parce que da nga abale sa xel doo dugg ci biir de du hasard yàlla ni ñoo ne la ayatin li ulil albab aaya yi pour borom xel yi la asamaan ni mu toll suuf ni mu toll guddeeg bëccëg ni ko yàlla di changé ah la ayatin li ulil albab kii kéemtaan la pour ñeer borom xel yi nit du abale xelam mbokk yi nit du dénkaane xelam loola tax tufayl bi mu gisee déggee la mu dégg ndax dafa yonent bi da jàng alquran alquran bi di di di romb witeen yi di dugg ci nopp bi di dem ci tempan bi di dugg ci xol bi mu ne ajaban li nafsi fa kayfa uiru aqli xëyri ay waay waay waay man de yéemu naa man de waar naa sama bopp fa kayfa uiru aqli xëyri nu may jëlee sama xel dénk ko keneen mooy jël sa xel waaw man de man de du ma wax dara man du ma wax du ma xalaat man kii lu mu wax noonu la lu mu def noonu la baax na baax na waaw moom rek danga abale sa xel jullit du abale xelam fa kayfa uiru aqli xayri ndeysaan ndeysaan hamza asadullah hamza ibnu abdul muttalib dafa nekk ci saxraa bi yor gëléemam xam ngeen hamza lu mu daan rëbb ay gaynde sayaadul usuud Hamza gaynde la daan rëbb dégg di hind keroog looloo nga hind wax uhud Hamza sayaadul usuud Hamza rëbbkatu gaynde Hamza nekk ci saxraa bi xaaj guddi mu siggi xool kaw asamaan gis biddéew yeeg weer weeg asamaan bi mu ne màkk la ma fa bàyyi dëgg la de moo tax dafa ñëw fekk ñuy dóor yonent bi rek mu dugg ci lislaam ci sot ndax biddéew yooyu mu gis asamaan sooyu mu gis suuf soosu mu gis lëndëm googu mu gis yëfi leer ne naññ biddéew yi normal dëkk bi ne tekk mu ne ka nekk màkk di wax yàlla dëgg la lii jomb na organisation bu mel nii ñun ñii rek xool leen àddina bi mbokk yi ni ko yàlla organisé xoolal diggante bëccëg ak guddi asamaan suuf jant weer géej nga xool loolu organisation boobu muy dem ngelaw li di ñëw ah am na waaye am na lu nekk ci ginnaaw am na ku nekk ci ginnaaw kooku waay am na ku nekk ci ginnaaw loolu lépp kooku mooy kan mooy allahu jalla jalaaluhu waaw benn waaye da doon weddi yàlla am na yàlla amul waaye ñu ne ko mës nga dugg géej mu ne waaw loo jëloon mu ne gaal mu ne nga dugg ci géej gi gaaj gi géej gi tremblé mu ne waaw mu ne vague yi yëkkati sa bato bi ba ci kaw mu ne waaw mu ne la après mu ne damaa tiit dafa ne damay dee mu ne waaye après mu ne waaye li may tiit ne dafa ne damaa dee am na sama xel ku mu dem ne dina ma musal mu ne kookooy yàlla moo tax làkk yépp ko am tubaab bi sax bu tiitee mu ne moo jë ah moo jë bu dee ko tukulóor bi mu ne allah séeréer bi ne roog waaye bu mu egg ci seen bi nag dañ yem ci ruug rek ah waaw ndeysaan ku nekk amal na ko fii làkk yi wax leen my god acca ñëw leen ana allemand yi ana allemand yi ana ñuy def allemand université gis ngeen ya allah ay sama boroom ndeysaan yàlla ngoog waaye mun na yàlla am na ku gëmul na yàlla am na alku nga inna fi xalqi samawati wal ardi waxtilaafi lleyli wannahaar la ayatin dalil alwaadiha ala wujudi illahi taala wa qudratihi wa ilmihi wa hikmatihi wa rahmati gis ngeen lu ñuy jàng ci am asamaan amu suuf mooy ay preuve la yu leer naññ ne yàlla am na waaye yàlla moom ku am kattan la asamaan si ki ko téye boobu ba léegi daanuwul kooku am na kàttan wala amul kàttan ki téye suuf si boobu ba léegi yënguwul xoola yàlla bu ne woon géej dawal ba buntu pikin nga delluwaat luy xew ah xoola àdduna bi yëpp fi yàlla di toog mere nit ñi ba ci àgg rek mu ne suuf si yëngatul iza zulzilatil ard zilzalaha allahu akbar xoola àddina bi fu muy toog ba ci àgg yàlla mu ne géej gi débordeel sa yaram day daw bu géej gi génnee 30 secondes wala une heure de temps ba affaire yi dal nga gis ñépp nekk ci kaw ndox mi dee yàlla dafa am kattan de yàlla du ku ndaw de du ku ndaw wallahi ci téye bu mu téye asamaan bind bu mu bind asamaan ak suuf changé bu muy changé guddeeg bëccëg ay dalil la yu leer na yàlla nganda la ponkal la du ku ndaw loolu ñu naan ponkal mooy yàlla ah tey boo romboon benn waaye ndogu ba pare daal di yëkkati benn Mercedes ne ko nii looy wax ah bu yëkkatee njaga njaay nag ñoom ñaar koy gën a wax ponkal ki yëkkati 16 21 nag looy wax waaw ki yëkkati la loroon nag asamaan si ku ko yëkkati rafa as-samawat bila amadin tarawnaha wala du loolu ma yaay wi yàlla nee na maa yëkkati asamaan te amul benn poto bu ko téye ngeen di xool waaw kooku du ngand waaye xam nga lu tax du feeñ ku ndaw bu defee lu ngand boobu lay feeñ ku ndaw ku ndaw ku ndaw bu defee lu ngand day feeñ waaye ku ngand moom bu defee lu ngand du feeñ parce que ñun dañoo tuuti buñ defee dara dañu bëgg mu ngande waaw dañu bëgg mu ngande gis nga waa ji bu yëkkati boo ko romoon tey mu yëkkati oto da ngay gis mu naa nii nit ñi pour ñu ne lan ah di yuux nga gis mu naan nii waaw gaa yi di ndey parce que dafa tuuti dafa tuuti moo tax lu ngan mu ne mu lii muy dem mu yaakaar ne lu ngan ne la du fekk du dara ndeysaan rafa samawaati yàlla moo yëkkati asamaan yi waaye ci kattanam waaye yemul ci loolu wa ilmihi ci xam-xamam dañuy jàng ci asamaan ak suuf ne yàlla ngand la waaye dañuy jàng ne yàlla am na xam-xam de wala amul xam-xam jàkka ji nga nekk boo ñëwee ñu ne la maçon bi ko tabax nga xool ñu ne la ki am na xam-xam wala amul xam-xam looy wax ah nga xool ventilateur yi ñu ngi ko installé nangam nangam ñu ne la ah technique kii bi de am am na xam-xam wala amul xam-xam looy wax nga gis oto di daw ñu ne la ki ko defar am na xam-xam wala amul xam-xam looy wax ah du ngeen tontu am na xam-xam nga gis avion di naaw ñu ne la ki ko defar am na xam-xam wala amul xam-xam looy tontu ah am na waaw nga gis yàlla defar asamaan defar suuf ñu ne la am na xam-xam nga ne déedéet yàlla amul moo tax kàttanu yàlla day feeñ ci bind bi mu bind asamaan waaye xam-xamam da ciy feeñ ne yàlla boroom xam-xam la te ku am xam-xam moo la may nag de te tuuti la may nit ñi wa maa utitu min al ilmi illa qalil qalil te danay wan ne yàlla lépp lu mu def ci xam-xam la ko def yàlla du def dara ci ci ci làmbatu mukk ndax boroom xam-xam la xoola asamaan rek boobu sax dafa sori wa fi anfusikum afala tubsiruun xool leen seen bopp bu ngeen de xoolee seen bopp ngeen xam ne yàlla am na xam-xam acca bismillah ñu tàmbali nopp fi mu nekk la war a nekk wala waru faa nekk ku bëgg ñu changé sa bopp yëkkati sa loxo nopp fi mu nekk laa wax fii la war a nekk wala waru fee nekk su fekkee waru fee nekk dangaa bëgg ñu changé la sa bopp waxal foog fu ñu koy def bët fi mu nekk foofu la war a nekk wala waru fa nekk fekkee waru fa nekk bismillah waxal ñu changé la ñoo defal ko fan ñu defal ko ci ginnaaw xanaa ngay wax defal ma ko fii ci ginnaaw kon du ne du mënul nekk xoola bakkan xoola gémmiñ xoola loxo yi xoolal tànk yi bu nekk da ngay gis fi mu nekk foofu la war a nekk moo tax yàlla nekk alxakim alim ba pare dafa am xam ko pare waaye xakim ku xereñ koo xam ne lu mu def rek noonu la mën ngaa dugg fii léegi naan non ventilateur yi warul woon nekk fii moo tax jàkka bi féexul nee lañ ko waroon def non peinture bi warul woon weex parce que day gaaw a tilim non bunt yi warul woon mel nii nangam moo mo waaye yàlla aca suñu bopp a ngi nii rek ku nekk na wax sa bakkan fu mu waroon nekk kenn bëggul ba sam xanaa ñu changé ko ah tànk yi nag nañ ñëw ci tànk yi xëy na tànk yi moom foofu du foofu sa tànk fan la war a nekk doo ma ne xanaa ci bopp yi de doo ma ne xanaa ci sa mbagg yi de gis nga yàlla mooy xakiim lu mu def rek noonu la allahu akbar amul critique wala asamaan lu tax yàlla aj ko ci kaw parce que day génne ndox dafay roose suuf si suuf si lu tax mu nekk suuf dafa war a sax te lii sax suuf la war a jógee jëm kaw kon li koy roose fan la war a nekk ko war a tiim xoola jant bi dafa war a dafa ñu war a nuggal dafa ñu war a tàngal comme fan la war a nekk allahu li war a féete kaw yëpp yàlla daf ko def kaw li war a nekk suuf mu bàyyi koy suuf allahu akbar jallat qudratullah ma azamaka ya rab mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala ay mbiram buñ ko bëggee wax lu fi jóge benn aaya bi mën nañ ci fanaan yendu ci at juróom-ñaar fukki at mën nañ toog di firi inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi leyli wa nahaar la ayatin li uli albaab suñu paree ci xam-xamu moom yàlla tabaraka wa taala waaye xikmatihi xereñam xereñ xereñ xereñam moom yàlla allahu akbar xereñam moo lay wan ne lu mu def noonu la lu mu def noonu la yi Moussa dafa gis ñaari nit yuy sangu géej kenn ki toog di garde yére yi ñaar ñaa ngi sangu kenn kaa ngi toog ñu jékki-jékki mu gis kenn ki di raam di dajale yére yi mu ne woo yàlla lu tax ñaar ñee di sangu kii moom nekk handicapé sanguwul yàlla mu ne waaw loo loo ci bëgg mu ne man de bu doon man la moom day dem fekki mbokkam yële sangu waaye yàlla bàyyi ko bàyyi tànk yi yàlla mu ne loolu nga gis mu ne waaw yàlla mu ne baax na yàlla daal di yëkkati daal di yëkkati waa ji rek waa ji simmeeku dem dugg biir géej di sangu di sangu ba caag rek mu nëq ñaari gaa yi nuur ak ñoom ba gaa yi sedd buy mu mu mu génn moom Moussa Diop ah waaw lii nu mun demee moom rey na leen di yàlla mu ne waaw yooyu nag maa yaa ma ëpp yërmande lii moo taxal ma téye tànk yi lu yàlla def noonu la waaw benn buur dafa weddi woon loolu lu yàlla def noonu la mu ne moom yow lu ñu wax rek nga ni lu yàlla def noonu la eh dugaleen ko ci kaso bi mu naan lu yàlla def noonu la ba ma seen def loolu la ma loolu baax na ñu jël waa ji dugal ci kaso bi buur bi génn ñu jàpp ndeke buur bi benn nopp la fekk buur bi dafa am accident bu am benn nopp dagg mu ne ko looloo gën de baax na de lu yàlla def looloo baax mu ne sama nopp dagg yàlla baax na dugaleen ko ci kaso bi uyu kii dafa dof moom la ñu wax mu ne yàlla baax na ñu jël waa ji doon ci kaso bi buur bi génn ñu jàpp ko ñu ko jàpp dañ doon wër nit koo xam ne dañ koy jox xërëm yi bi ñu demee ba tëral ko di ko waaj a rey kii reyaate daa ne kii daa manqué yàlla bëgg ko ñu ne fu manqué ñu ne mu ne benn nopp la gars yi ne yow ñun xooluñu woon loolu oh bàyyi leen ko mu ñibbi ñu bàyyi ko mu ñibbi mu ne génnee leen ma waaji ci kaso bi ñu génne ko mu ne ko waaye yow see xam nga ne man damaa demoon fee ñu war ñu war maa rey mais xam nga tax rey ñu ma mu ne waaw mu ne sama benn nopp bi mu ne waaw benn nopp ak baag bopp baat bu dagg lu gën fii ñu toog ku ñu ne woon kaa ñu dagg sa baat ak ñu dagg sa benn nopp looy wax ah kon benn nopp ak benn ba baat du gën mu ne ko buur bul yem foofu bul yem foofu ci yow indil message mi ci man mu ne ko gis nga tëj bi nga ma tëj kaso mu ne waaw mu ne yow bu ma àndoon yow man la ñuy jàpp maanaam bu ñu xoolee ñu gis yow sa benn nopp dafa dagg man la ñuy changé mu ne kon kaso beeg baat bu dagg lu gën mu ne wallaay wax nga dëgg nekk lu am rek yàlla defa ko pour hasard sa dund gi ngay dund lu ci am rek bul découragé xamal ni am na lu tax yàlla def ko soo xamee loolu rek da ngay noppalu xam nga du tax yi lu tax ñu ñu sonn mooy lu am du yàlla am ñoo xam ne am na fi mu nekk ni ñu ñàkk bag ah ñu amul bac dañu koy misère est ce xam ngoon boo amoon bac fan la lay fekk est ce xam nga boo amoon bac bac boobu lu mu lay jural ëllëg est ce que du tax nga génn ci lislaam est ce que du tax nga murtat ah waaw sama première année ba ma ba ma kii ba ñu ngi kii dañu ne classe bi moom man man sama bac assuré la mais ba ñu toogee bac dafa eh, mathématiquement zéro aw ma bac si successivement mais ñi nga xam ne amoon nañ année boobu ñoom ñëpp dem nañ fa te fu mu toll nii mënoo wax ne kii jullit bi wax parce que ñun ñëpp dañ doon jullee kii Blaise Diagne eh, jàkk Blaise Diagne ñun ñoo ko jullit
gis nga loolu kon est ce que yow loolu ngay ngay xëcc noonu baax na ci yow ndeysaan kon yàlla subhaanahu wa taala nañ ko jox suñu bopp waaw mu ñuy wàmmat lu mu def ñu nangu istislaamu lillah li qadaa illah wa rida ala hukmihi wa qadrihi bu ñu defee loolu dañuy noppalu féex dootoo sonn doo rey sa bopp doo kër këri li nga war a def ngay def nga bàyyi mbir mi ak yàlla waaye boo nee yàlla toogal fële bàyyi ma ma lijjantil sama bopp xam nga doomu aadama yi loolu la ñu wax xam nga yàlla dafa ne wa ma min dabbatin fil ard illa lala risqa yàlla nee na kuy dukkat ci kaw suuf rek maa lay jox nga lekk doomu aadama mu ne eh yàlla déedéet man bul ma jox maay jox sama bopp yow yàlla toogal arsh nga bàyyi ma ma lijjanti sama bopp yàlla mu ne demal moo tax gis ngeen doomu aadama balaa muy lekk lu muy daj ah balaa ngeen lekk lu ngeen di daj du ngeen tontu da ngeen di daw a daw dañuy daw a daw ba ni karas weer bi dee nga ñëw toog indi carnet bi dañ jënd saako ceeb fuu tut tut tut acca lu lu ci des ñu ne ration bi nga fay nañ ndox déedéet fay ko mais mais mais non ñu commencé jooy jeex na yàlla nag bu sa ndaw si bu na ndaw si ne waa doo may 10 000 journée boobu yëpp doo wax da ngay ñàngal kanam ndeysaan mbokk yi nañ leen delloo suñu bopp yàlla xoolal rabu àll yi ñoom rabu àll yi ñoom picc ak xataa xar mi ci kër gi comme dafa jox yàlla boppam day toog di la xool nga romb mu ne la eh saloo añaguma de nga ni xar mi lekk na ñu ne de nga ni jënd leen ko rakkal mu ne la merde xamoon nga ni fii lay mujj soo bëlee mënoo ko woon indi mu gaaw mu añ ba pare nga indi leen mu ne ana ndox bi nga ni yéen indi leen ko ndox bi ana kii bi mun naa dimanche nga xëy toog mu ne la gëñ naa sangu de jugal nga may xulli nii sa bët yi rek xanaa moom man après gaaw nga pare mu ne la baleel fi ma nekk gaawal waay nga jël rato bi bale defar ba mu rafet de saa gis nga xar mi sax moom day toog dina xool rek du def dara yaay def yëpp xar mi sa biir kër laa wax xar mi xar mi laa wax dafa jox yàlla boppam moom du du doon fen wala seen xar yi dafa am fu ñuy liggéey wa ma min dabbatin fi l ard illa ala allahi risqaha wallahi yàlla moo wax dëgg doomu aadama mi nangu nag mi bañ loolu moom dafa sonn balaa muy lekk day tas balaa muy am dundam oh laa ilaha illa allah sa yaram day daw waaye xoolal rabu àll yi nga xam ne dañu ko nangu gisu leen benn rabu àll di def grève de la faim ne ñun lekk ñu ndékki wuñu añu ñu réeruñu xoola gaynde lu muy lekk yàpp te du lekk yàpp bu fanaan de yàpp bes taq te léeg-léeg nga gis ndeysaan ci documentaire yi ñu ne la gaynde bi am na 50 ans 50 ans muy lekk yàpp bu tàng jër te liggéeyul fenn te yow balaa ngay lekk yàpp bu ñu la fayee sa salaire nga ni xaaral jaar débiteri tabaski laa gëj a lekk yàpp la gaynde liggéeyul fenn te day lekk yàpp wala wala nangu leen loolu dañ leen jox yàlla suñu bopp wallahi ku jox yàlla sa bopp doo sonn doo sonn àdduna doo sonn àllaaxira ku dénk sa bopp yàlla nañ ko essayé weeru ko ren lañ nekk ñu déwén ñu xool na kenn ci ñun fii jéem a jox yàlla boppam billaahi dundam du sonn doo sonn lépp lay fekk si da ngay nelaw sax ñu lay yee di la ko jox waaw da ngay nelaw laa wax ñu lay yee di la ko jox nga naan su mu leenoon bàyyi ba ma yeew ay na la waaye ma cinquante mille laa la indi loon dama laa gëj a gis àddi yaa ngoog nga ne ko dugal ko ci suuf njëkkanaay bi gis nga de da ngay gis ñoo xam ne gars yi dañuy gàddu xaalis sax bëgg laa gis duñ la mën a gis si xaalis lañ gàddu kat bëgg laa gis duñ la mën a gis hee allahu akbar gars yi nañ leen dénk suñu bopp yàlla buñ dénkee suñu bopp yàlla noppalu suñu borom subhanahu wa taala mu ne ñii xalaat ci asamaan ak suuf ci guddeeg bëccëg mooy borom xel yi ñan ñooy borom xel yi mu ne allazina gaa ñi nga xam ne yazkuruuna allaha dañuy tudd yàlla qiyaaman bu ñu taxawee wa quudan bu ñu toogee wala junubihim ak bu ñu tëddee ci seeni wet yi wa yatafakkaruuna ña ngay xalaat allahu akbar fi xalqi samawati wal ard dañuy xalaat ci bind bi yàlla bind asamaan ak suuf nekkul rek da ngay yow da ngay dem ba tefesu géej rek da ngay gis benn yaay benn waay mu ne maa ngi dem géej nga ne ko waa demal te ñëw su demee mu ñëwee nga ne ko loo fa jële mu ne ah loo fa jële comme lan non dama demoon nii rek pour sang waaw mu demoon pour bronzer wu rek ah déedéet boo demee dafa am loo fa war a jële soo taxawee guddi nga xool asamaan su la nit ñi laajee war ngaa cee tontu soo xoolee suuf nit ñi laaj la war ngaa tontu soo xoolee yàlla ni muy wuutale guddeeg bëccëg war ngaa tontu lu tax ndax yàlla moo ko wax allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junub waaye wa yatafakkarun dañuy xalaat nekku rek ngay xool te doo xalaat xool fan la la war a yóbbu ci xalaat xanaa loo moo tax ñu tere nga xool jigéen parce que xool jigéen fan la la yóbbu ci nga xalaat ak moom njaaloo wala ñu tere la nga xool ko koo gis freenewul ay bëtam ci jigéen ñi du yëg xalaawatul iman du yëg caf kay ngëm yàlla ci xolam yonent bi nee na ku bëgg am ngëm yàlla da ngay bàyyi xool jigéen ñi da ngay sajj say xef lan laa ci nam waxuma nga bañ a xool jigéen naan nii de waxuma loolu de lan laa ci bëgg a wax mooy da ngay wàcc sa bët saa yoo gisee lu sa bët warul xool bul ko xoolaat tegal bëri yi suuf waaye waxuñu nga nekk di dundal bët yi di dundal xol bi waaw waaw waaw di dundal di dundal bët yi waxuñu loolu loolu soo koy def doo am bànneexu ngëm yàlla da ngay julli julli bi du saf dara ngay woor koor gi du saf dara ngay jàngal Alxuraan sa xol du yëngatu ngay tudd yàlla doo doo yëg dara c'est parce que bànneexu imaan moo nekkul ci sa xol loolu ngay dégg léegi nit ñi di wax naan wax dëgg yàlla man de may yëgatuma dara daal yëgatuma dara bu njëkk ba da ngay gis ci xiyaamul layli ilimaan buy jàng rek gars yi dañuy commencé di jooy waaye léegi waaraate yi sax waaraate yi sax nit ñi dañuy reetaan dootuñu jooy ngëm yàlla moo nekkatul ci xol yi xol yi ñoo wow xol yi ñoo maral ñoo bekkoor sahabatul kiram yàlla moo leen wax ne bu ñu leen doon jàngal alquran zaadathum imanan wa ala rabbihim waaye da ngay gis imaan boobu ngëm yàlla googu da ngay gis dañ koy yëg ci seen yaram yi seen yaram yi day bañ alxuraan boobu ndeysaan day ànd ak seen xol yi di lemu ay léegi nii yonent bi nee na ku yàlla xañ xool awra jigéen ñi yàlla dina la may bànneexu ngëm yàlla sa xol nga koy yëg da ngay sentir ne man man gëm naa yàlla da ngay sentir boo jullee julli naa da ngay sentir boo saraxee saraxe naa da ngay sentir boo toogee tudd yàlla da ngay yëg yaa ngi yokk da ngay yëg waaye bu fekkee ne dangaa boyal say bët say bët utaloo leen rido lu ñëw nga xool da ngay xool ci mbedd yi xool ci biir kër yi xool ci journal yi xool ci télé yi xool xool xool xool du dem pourtant alquran daf ñu ko wax de qul lil muminina yaxuddu qul lil muminina yaxuddu min absarihim wa qul lil muminati yaxdudna absarihin kon wa yatafakkaruna ñu xalaat nit bu xoolee lu ko war a jural ngëm yàlla daf cee war a xalaat wa yatafakkarun dañuy xalaat lan la ñuy xalaat fi xalqi samawati wal ard ci yàlla bind bi bind asamaan ak suuf lan mooy résultat bi ñu dem ci seen boroom xam ne li yàlla rek moo ko mën ñu ne rabbana yow sunu boroom maa xalaqta haza batila lii de bindoo ko pour neen baatilan la shay maqsuudu minhu wa innama huwa min baabi laibi yow yàlla lii day bi nga koy bind soxla woo ci dara da nga kaa bind pour fo soxla woo ci dara pour fo moo tax nga bind ko mbokk yi kenn ci ñun bu jëndee terrain tabax ko ba mu rafet def ci lépp lu tabax laaj ci jamono ji ay doomam ñëw rek dugg ci kër gi commencé yàqate daanaka suñu papa moo mun a fo xoolal kër gi mu tabax rek di fo commencé jël ay martu di toj boo ñëwee noo leen di wax noo leen di def est-ce que jaadu na buur bu toll na yàlla bind asamaan bind suuf wuutale guddeeg bëccëg wàcce la ci kaw suuf ne la boo xoolee asamaan xool suuf xool wuutale gi may wuutale guddeeg bëccëg na nga xalaat ne man yàlla damay fo dama bind àdduna pour fo ah ki jënd oto day fo ki tabax kër day fo ki takk jabar nag waaw léegi yow yëpp nga gis ko waa ji ko def ne la man fow ma de yow nga jàpp ne kii day fo nga gis yàlla lim def lépp ci àdduna bi amoo lenn looy xalaat lu dul yàlla daal dafa bind lii ci caaxaan daf ko def pour fo moo tax soo xoolee yow nga xam yow jullit lan ngay wax rabbana ma xalaqta haza yàlla li defoo ko pour neen asamaan indiwoo ko fi pour caaxaan suuf defaroo ko pour caaxaan man mii indiwoo ma fi pour caaxaan su fekkee yàlla indiwuñu ci kaw suuf pour caaxaan lan lañu war a jural mooy ñu jaamu ko rabbana yow sunu boroom maa xalaqta bindoo haza lii baatilan ci neen kon lan mooy résultat bi looy trouvé subhanaka sell ñeel na la faqinaa yàlla ñu musal azaban naar ci mbugalum safara ndax ku yàlla may xel xalaatoo ci di caaxaan ba dee safara nga jëm kon yow yàlla yàlla mu musal ci mbugalum safara waa ji ki ki am résultat bi nag mooy kan mooy ki jëfandikoo xelam waaye ki ebale ki abale xelam moom su xoolee asamaan xool suuf xool wuutale gi yàlla di wuutale guddeeg bëccëg mu du xalaat ñàkk xalaat boobu muy ñàkk xalaat loolu moo ko dul indi résultat xanaa xamoo même njàngu àdduna ña même njàngu àdduna ki ëpp lu mu lay xalaat moo lay ëpp xam-xam moo lay ëpp ay projet yu muy def waaw lan moo tax scientifique yi am xam-xam ah dañuy xalaat bu ñu xalaatee bind bu ñu bindee jéem ko def ki gën a bon ci nit ñi mooy nit ko dul xalaat nit ko abale xelam mbokk yi li ñu waxoon sànq mooy nit war na muslu yàlla ci safara aaya baa ngi noonu subhanaka faqina azaban naar eh yàlla sell ñeel na la yow yàlla yàlla ñu musal ci mbugalum safara rabbana yow sunu boroom innaka yow man képp koo xam ne tuddi xilu naar dugal nga ko safara faqad axzaytahu toroxal nga ko allahu akbar ku dugg safara torox na azaltahu wa asqaytahu toroxal nga ko texeedil nga ko ku xoole ba dugg safara rek yàlla dalaa toroxal yàlla dalaa doyadil toroxal la wala yàlla yàlla musal ci safara safara lu jara musul la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku julli fajar ba pare balaa ngay wax ak kenn balaa ngay simpi sa tànk nga ni allahumma ajirni min annaar ñaata yoon safara du la laal boo jullee timis nga def allahumma ajirni min annaar allahumma ajirni min annaar soo waxee yàlla yàlla musal ma ci safara yàlla musal lañ soo waxee yàlla jox ma aljanna yàlla jox la aljanna moo tax soo jullee timis ak suba war ngaa wax allahumma ajirni min annaar wala war ngaa wax allahumma inni asaluka aljanna bu nekk sept fois allahumma ajirni min annaar allahumma ajirni min annaar allahumma ajirni min annaar allahumma ajirni min annaar allahumma ajirni min annaar boo ne yàlla yàlla nag ma musal ci safara safara ne yàlla yàlla nag ma musal ci waa ji yàlla ba mu dugg ci man soo ne yàlla may ma aljanna aljanna ne yàlla kii di ma ñaan yàlla dugg ci man allahumma inni asaluka aljanna saa yoo jullee suba ak timis war nga kaa def saa yoo jullee suba ak timis pour yàlla musal la ci safara safara jar naa musul de waaw safara jar naa musul yàlla na ci yàlla musal képp ku yàlla seetaan ba mu dugg safara kooku gàcceel na ko képp ku yàlla seetaan laa ba nga dugg safara kooku yàlla gàcceel na ko rabbana yow sunu boroom innaka yow man képp koo xam ne tudd xili naara dugal nga ko safara faqad axzaytahu gàcceel nga ko wa maa li zaalimiina ñeelul ñiy tooñ min ansaarin ku leen di dimbali ëllëg wa maa li zaalimiina min ansaar yàlla nee na kuy tooñ ëllëg kenn du la dimbali waaw tooñ yëpp nag bi ci gën a garaaw mooy tooñ yàlla ku tooñ di tooñ di tooñ ba dajeeg yàlla tooñ ko kan moo lay dimbali kan kan mooy dem ëllëg fekk kuy tooñ yàlla ngay danga koy solal robu avocat yàlla kii may avocat am tooñu la de ah àdduna de moom ndeysaan di nga fi gis benn waaye boo xam ne ñooy dañ koy fay mu fekk fen gi di ko def dëgg ah nga fekk ku rey nit ñu fay waa ji mu ñëw taxaw ne non rey ko rey ko waaw dafa def nii def nii rek waa ji dee mais nangam nangam waaw ëllëg yowmal xiyaam kan mooy taxaw ci kanamu yàlla di la laajil yow ne tooñoo yàlla yàlla mu ne kii daf maa tooñ nga di tooñu benn waay yàlla daawoo malaaka yi ne leen diw yóbbu leen ko safara comme malaaka yi gisuñu waa ji def lu bon ñu ne yàlla waa ji tooñu la de yàlla mu ne yóbbu leen ko safara malaaka yi ne gisuñu ci këyitam bi ñuy bind bàkkaar gisuñu ci bàkkaar ñun lu baax rek lañ ko bindal ah waaye yàlla mu ne ndax yéen xamu leen ci biir man maa xam ci biir yéen ci kaw ngeen xam waa ji lu tax ngeen ne dafa baax ñu ne yàlla kii dafa amoon yaay muy sang yaay ji di ko fomp di ko solal yére di ko jox mu lekk añ ndékki reer lu yaay ji bëgg mu def malaaka yi di ko bindal tiyaaba yooyu waaye saa yu ko joxee mu lekk mu naan ba pare rek ak jëlu mu def rek xol bi mu ne yàlla na dee ba ma noppalu yàlla na dee ba ma noppalu malaaka yi nag xamuñu loolu ñoom la ñuy gis waa ji li muy def ci kaw waaye ci biir xol bi kan moo fa nekk rabbukum aalam bi ma fi nufusikum rabbukum aalam bi ma fi nufusikum yàlla rek moo xam li nekk ci seen biir yàlla mu ne yéen malaaka yi xamu leen loolu kii deful woon ngir yàlla lan la bëggoon noppalu kon warul am tiyaaba acca yóbbu leen ko kon yàlla moo xam la ci biir wala bi dañuy léeb ñu ne mbonaata xam la ca déeg ba moom mi naan ba ca ban ba moom moo xam lan moo nekk ci déx ba ndax mbonaat moom day dem ba ci ban bi fi amatul ndox ban bi mu toog kon kay kooku moo xam la fa nekk waaye mbott bi nga xam ne moom ma ngi ca kaw rek xamul lu nekk moo tax di yuuxu rek di yuuxu rek sunu borom ne subhanahu wa taala wa ma li zalimina min ansar kuy tooñ ëllëg doo am ndimbal waxoon naa leen borom xam-xam bu tudd Saïd Hawa rahimahullah nee na bu ngeen di jàng alquran bàyyi leen xel ay fu muy jeexee sa montre bi am na heure ban heure moo jeex kon nag sunu aaya yi du jeex day yàlla nee na kuy tooñ doo am ku la dimbali wa ma li zalimina min ansar kon soo déggee lii lan moo war ci yow bàyyi tooñ ndax yàlla nee na kuy tooñ ëllëg kenn du la dimbali yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla day taxawloo jaam ñi ëllëg yowmal xiyaam mu ne ana ki ñu doon tooñ mu ne maa ngi nii mu ne taxawal nii ana ki doon tooñ mu ne maa ngi nii mu ne taxawal nii yàlla du la bàyyi lu dul mu nangu sa àq daat la koy jébbal tooñkat ëllëg yowmal xiyaam bu ñëwee ay tiyaabaam la ñuy jël joxe su tiyaaba yi jeexee ñu jël bàkkaaru nit ñi sëf ko ko dégg la lu ma wax de kan moo dégg li ma wax tooñkat yowmal xiyaam su jaam ñi taxawee ci kanamu yàlla ñu xëcc la nga ñëw taxaw dañ naan la fayal ñii nga doon tooñ nga ne yàlla amalu ma leen jox ñu jël sa tiyaaba jox leen bu sa tiyaaba jeexee ñu jël seen bàkkaar jox la maanaam bu ñu fayee tiyaaba yi ba mu jeex te ñi nga doon tooñ jeexul amatoo loo leen jox ñoom seen bàkkaar la ñuy wàññi këpp la ko tooñ baaxul yàlla dafa tere tooñ moom ci boppam dafa araamal ci boppam tooñ mu ne inni haramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharrama fala tazalamu man yàlla maa leen ëpp doole mais duma leen tooñ kon bu leen tooñ kon jullit du tooñ wa ma li zalimina min ansaar yàlla nee na tooñkat yi xam naa leen ëllëg fu ñu dugguma luqati leen wa sa yaalamu allazina zalamu ayya munqalabin yanqalibun ku tooñ yàlla dina la loqarti ëllëg moo tax yàlla wa ma rabbuka bi zallamin lil abid yàlla du tooñ jaam ñi yonent bi nee na iyaakum wa zulm fa inna zulm zulumaatun yowmal qiyaama mooy tundu ku leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm la yowmal qiyaama te tey da nga gis benn waaye am doole rek lu ko neex def waaw tooñ ma sàmba tooñ ma demba pes moodu bule paate lu ko neex waaw boo waxee mu ne mbaay dinaa la dóor te sama loxo du la laal man duma seen morom man duma seen maas duma seen mappandoo parce que di jaay doole tooñal rek tooñal rek ba dajeeg yàlla di nga xam ne tooñ baaxul tooñ baaxul de yonent bi nee na ñetti ñaan yàlla du ko delloo ku woor bay dog ñaanu way jur ñaanu ku ñu tooñ ku ñu tooñ buy ñaan asamaan di yëngu tooñ baaxul de ku yeba ci ñun bàyyi tooñ sunu borom ne rabbana yow sunu borom inna naa ñun sami'na dégg nañ munaadiyan aji woote yu naadi di woote lil imaani ci ngëm an aminu kaay leen ngeen gëm bi rabbikum seen borom fa aman naa ñun gëm nañ allahu akbar rabbana sunu borom inna naa ñun sami'na dégg nañ munaadiyan wootekat yu naadi ma ngay woote lil imaani ci ngëm ñun dégg nañ yonent bi di woote kaay leen ngeen gëm ñun ñu ñëw gëm ñun dégguñu kuy woote naan kaay leen dem grand théâtre ñu dem de kaay leen dem stade ñu dem ah déedéet ñun dañoo dégg kuy woote ci ngëm yàlla ñu ñëw wuyu ko waaw waa ji ci ngëm la doon woote ñu daal di laxas sunu bopp bàyyi lépp luñ doon def daal dem wuyu ji ko سمعنا مناديا ينادي للإيمان والمنادي هو القرآن الكريم القرآن موي ووتر كايلن جم جم يالا والرسول أغير النبي صلى الله عليه وسلم يودن ووتر كايلن جم جم وتوسلوا بإيمانهم لربهم nit ña daal di jël seen ngëm daal di koy def tawassul ut def ko muy moyen yóbbu ko mu yóbbu leen ci yàlla taalibina asraful matalib wa asmaha magfiratu zunubihim wa wafatihim ma al abrar gaaña ba ñu déggee wootekat yi di woote am na ñoo xam ne ndeysaan bu ñu déggee bu ñu déggee bilaal di nodd bu noddee ba pare ñu ne rabbana innana samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ndax li tax ñu wax loolu mooy la ñu dégg wootekat bi di woote ndeysaan naan allahu akbar allahu akbar rek moom jural leen bu nu déggee waa ji noddu ba pare ñu ne rabbana sami'na munadiyan yunaadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ndeysaan ñu ne dégg nañ wootekat di woote taxaw ci gox yi ak ci pénc yi naan ñëw leen ngeen gëm seen borom kaay leen ñu ànd dem ci yàlla ñun ba ñu déggee loolu rek fa aman naa ñun de gëm nañ kon nag yow yàlla maa daama gëm nañ rabbana yow sunu boroom faxfir lanaa jéggal nu zunubanaa sunuy bakkaar wa kaffir anna sayyi'atina yow yàlla yàlla na nga sakk ah istar yàlla na nga nëbb wamx yàlla na nga effacé sayyi'atina sunu yu ñaaw wa tawaffana yàlla na ñu rey nga faatnu ma al abraar ñu ànd ak nit ñu baax ñi ndeysaan rabbana yow sunu boroom faghfir lana jéggal nu zunubana sunuy bàkkaar wala safara bu ñu duggee safara mbokk yi dañuy woo yàlla rek di jóg di jooy naan rabbana yow sunu boroom wala tey ñoom foofu la ñuy nangoo nekk ay jaami yàlla ndeysaan dañuy woo Malik naa ni Malik yaa Malik udoo lana rabbaka li yuxafifa anna yawman min al azab ay Malik ay Malik Malik mooy kan mooy ki gàdd safar Malik wool ñu sa boroom nañu wàññil rek mu oyofal ñu benn bis mbugal mi mu wàññil ñu benn fan allahu akbar yàlla na yàlla jéggal suñuy bakkaar rabbana faghfir lana zunubana yow yàlla jéggal ñu suñuy bakkaar mbokk yi kan moo amul bakkaar ci jumaa ji kan moo amul bakkaar kenn yëkkatiwul de waaw kii wax na dëgg wax na dëgg moom amul bakkaar amoo bakkaar wax nga dëgg de kilifa yi kay laa wax ñun borom sikki mi ku amul bakkaar ñun ñëpp a fees ay njege njaay lañ yor ay conteneur fees daal loolu tax warut ñoo nelaw surtout nag guddi yi mujj yi loolu tax warut ñoo nelaw de nelaw jeex na de ndax lan saison bu ñuy jéggale bàkkaar ci lañ toll mooy guddi yeeg bëccëg yi koo gis rek am na bàkkaar koo gis koo gis koo gis koo gis am na koo gis am na koo gis am na ku sa xel dem am na bàkkaar ku seen xel dem rek am na bàkkaar ku seen xel dem am na bàkkaar ku mu mun a doon waxuma ko de yonente ko wax kulli ibnu aadama xataa wa xayrul xataayin tawaabuun yonent bi ne koo gis rek dafa fees dal dal dal dal dal dal ay bakkaar dal waaw kon nag te bakkaar moom yàllaa koy baale chrétien bu amee bakkaar nu muy def day dem ci pape bi day dem ci kii bi abe bi daal di sukk toog ci suuf aaba bi daal di raay bopp bi daal di koy jox benn benn tàngal ne ko baal nañ la sa bakkaar mu ne ameen wala du loolu la ñu def day raay bopp bi nii daal di koy saxal tàngal bi ndeysaan xoola naxaate yooyu ñun nag bu nu amee bakkaar pour yàlla baal nu nu la def kan moo am fi bàkkaar bëgg yàlla baal ko ah bon ku bëgg yàlla baal la nooy def ku bëgg yàlla baal la ndeysaan da ngay dem nga jàpp bu waree sangu nga sangu bu fekkee dafa laa jàpp nga jàpp nga julli ñaari rakk boo sujjootee nga yàgg fa lool nga ñaan yàlla yàlla jéggal la nga bëri looy wax ci sujjóot bi laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min az-zalimin nga bëril say sujjóot looy wax rabbi ixfir li wa tub alayya innaka anta tawabul ghafur nga bëril looy wax rabbana zalamna anfusana fa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna baat yooyu la aadama waxoon yàlla baal ko kon soo ko waxee yàlla baal la baat yee la yunus waxoon yàlla baal ko kon soo ko waxee yàlla baal la ay yonent ñoo tooñoon yàlla wax baat yi yàlla baal leen kon yow nag kon man nag kan moo bëgg yàlla baal waxal baat yi rabbana zalamna anfusana fa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin rabbi inni zalamtu nafsi zuluman kasiran wala yaxfiru zunuba illa anta faxfir li yàlla man de damaa tooñ sama bopp damaa fees dell ak ay bàkkaar oo yàlla jë jéggal ma yàlla dafa bëri yërmande de yàlla ku baax la ak a bëri yërmande yàlla boo ko jéggaloo rek mu jéggal la ku perte mooy ku dul jéggalu yàlla kuy sujjóot teg jéem ci suuf ba siggi jéggaluwul yàlla kooku perte na perte weesuwul chaque moment ngay diisoog yàlla di teg sa jë ci suuf te fexewoo yàlla baal la perte weesuwul loolu perte weesuwul loolu sigg ba siggi ndeysaan li waa ji waxoon papa gis naa yàlla de mu ne gis nga ko ah kon de suñu problème réglé na loo ko wax mu ne waxuma ko dara waxuma ko dara de mu ne kon rek tey rek ma waay nga gis yàlla waxoo ko suñu problème yow man mooy premier balaa ñuy lekk problème la balaa ñuy añ problème la nga gis yàlla waxoo ko sama papa premier la pour mu régleel ma ko mu dem jël bale taxaw xam ngeen bale taxaw fëgg ko booy bi ba bant bi damm mu ne bu ëllëgee boo gisee yàlla di nga ko ne mu réglé sama problème waaye ndox tamit weesuwul ku sujjóot digganteem ak boroomam nga xam ne dara desu fi was jut sujjóotal jege yàlla nga sujjóot jege nga ko ba nga siggi waxoo ko li nga nekkee waxoo ko sa bàkkaar yi waxoo ko say problème kuy wër ku dof bu la gisee na la yóbbaale kon mbokk yi ci aaya yi insha allah la ñuy taxaw ba suba ba lundi bi iznillah bu ñuy eggali ko bi iznillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu fan la fan la waaw